ethnique de notre pays. Originaire de Cabrousse, au sud par son père, Bruno était de la lignée d'une héroïne nationale, Aline Sitoe Diata, et avait des attaches familiales en terroir du Sine et du Saloum, au centre du Sénégal. Mais c'est au nord du Sénégal, précisément à Saint-Louis, qu'il vit le jour le 22 octobre 1948 d'une mère métisse. C'est à Saint-Louis qu'il fit ses classes du primaire au petit lycée de la rue Neuville. Et c'est à Saint-Louis qu'il se mariera plus tard, après de brillantes études au lycée Van Volo Novel de Dakar, actuel lycée Lamine à l'Institut d'études politiques de Toulouse et à l'École nationale d'administration du Sénégal, section diplomatie. Chrétien de confession, Bruno s'en est allé un vendredi, jour saint des musulmans. C'est tout un symbole, comme pour rappeler dans, un ultime message protocolaire son attachement indéfectible à l'harmonie sociale qui nous relie les uns aux autres sous l'ombre apaisante de la nation sénégalaise qui reste solide parce que riche de sa diversité au moment où dans plusieurs endroits la négation de l'autre provoque des déchirures sociales. L'unanimité dans l'émotion, dans les témoignages, ont montré l'appropriation par les Sénégalais de la personne de Bruno et de son œuvre, musulmans et chrétiens, vont accompagner le corps à l'église et au cimetière ils prieront ensemble pour le repos de son âme. Par le brassage unique de ses origines, Bruno incarnait l'homme intégral de la civilisation de l'universel, dont rêvait le président poète Léopold Sédar Senghor, qu'il avait appelé à ses côtés en 1977 L'éloge autour de Bruno Diatta est unanime. Tout le monde l'appréciait, même ceux qui ne le connaissaient pas, parce que l'homme était poli, sympathique et attachant. Malgré la distance et la réserve qu'impose la fonction, les inconnus l'interpellaient familièrement. Et son prénom suffisait comme identité remarquable Bruno, sans autre précision, c'était lui, c'était Bruno Diatta. L'estime à l'endroit de Bruno venait aussi de sa capacité unique de transcender les conjonctures et les convulsions de l'histoire en restant à cheval sur le métier et le pied ferme sur le socle de granit qui soutient la continuité des institutions. C'est pourquoi l'État et la République sont frappés au cœur avec la disparition du ministre Bruno Diatta. Au cœur de l'État et de la République, sa carrière professionnelle, lumineuse comme un rayon de soleil au zénith, est un condensé exceptionnel d'excellence et de longévité. De sa sortie de l'École nationale d'administration en 1973 au vendredi 21 septembre 2018, Bruno a dédié un parcours sans faute de 45 ans à l'État et à la République dont 41 ans au protocole de la présidence de la République, servant avec le même dévouement républicain tous les présidents du Sénégal indépendant. Le service du protocole, tâche prenante et complexe, exigeante et ingrate, restera à jamais attaché à son image. Il faut plus qu'une formation. Il faut plus que des diplômes pour exceller dans le protocole comme Bruno Diatta. Au-delà des textes, a et coutumes qui régissent la préséance et le cérémonial, le protocole, c'est d'abord la finesse d'un code de conduite rigoureux, inscrit dans le marbre des lois non écrites est nécessaire à la vie en société. Le protocole, c'est une affaire d'éducation, un art consommé de bonne manière, du savoir-faire et du savoir-vivre. Une invite permanente à la politesse, à l'humilité, au civisme, à la tenue et à la retenue. Voilà les valeurs dont le ministre Bruno Diatta était le porteur, le gardien vigilant, rigoureux, ferme et discret. Sans la rigueur immuable du protocole, la vie publique serait un chaos insoutenable. C'est pourquoi Bruno tenait par-dessus tout au bon ordonnancement de la préséance et à la bonne disposition des choses. Chacun à sa place et chaque chose en son temps. Sa tâche devenait ingrate quand, sans égard pour l'étiquette du protocole et les bonnes manières, on voulait passer outre les convenances établies. Mais lui, dans un calme olympien, tenait toujours au respect des normes sans geste déplacé, ni violence verbale, faisant sienne la sagesse de Rumi. Élève tes mots, pas ta voix. C'est la pluie qui fait grandir les fleurs et non le tonnerre. Bruno savait trouver le mot juste. Il avait le sens de la formule pour rappeler les uns à l'ordre et conseiller les autres aux usages de l'État et de la République. Mais ce n'est pas tout. Quatre décennies durant, il a organisé de main de maître le quotidien de l'État au plus haut niveau. Un travail de tout instant qui exige une disponibilité constante pour gérer le présent et anticiper le futur. L'homme était doué d'une mémoire phénoménale. Entre événements nationaux et internationaux, Bruno veillait sur les dates. Il connaissait chaque lieu de destination et ses conditions de séjour. Il maîtrisait parfaitement les distances à parcourir. Prêtait attention au décalage horaire et aux aléas de la météo. Bref, nom était soucieux du plus petit détail. Il ne laissait rien au hasard. Bien souvent, nous ne voyons le protocole que sous l'éclat de lambris doré. Mais derrière chaque scène bien réglée, où tout semble aller de soi, que d'efforts et de temps consentis, que de jours et de nuits notre illustre défunt couché pour l'éternité, dormant du sommeil du juste, est resté debout et éveillé pour que tout soit dans le bon ordre. Bruno a connu le temps où certains voyages relevaient de l'aventure. S'il a parcouru avec aisance, avec aisance les capitales du monde, il connaissait mieux que quiconque le Sénégal des profondeurs. Il a dormi chez l'habitant et parfois dans sa propre voiture. Il a traversé les rivières, arpenté les sentiers sinueux de nos campagnes et bravé des intempéries. Bruno connaissait son monde. Il était d'une urbanité exquise du plus haut dirigeant au plus humble citoyen. Il savait comment traiter chacun avec courtoisie et égard. De sa riche aventure humaine, il s'est fait au Sénégal et ailleurs des amis, des admirateurs et des disciples. Son expertise avérée était reconnue et sollicitée au-delà de nos frontières. Pour ceux de ma génération, Bruno a d'abord été un mythe vivant que nous renvoyait l'image de son élégante silhouette à la télévision. Plus tard, j'ai eu le bonheur de croiser son chemin dans mes fonctions officielles, la chance de le trouver à la présidence de la République comme chef du protocole. J'ai vu de près comment, dans une symphonie, sans fausse note, il a organisé en moins d'une dizaine de jours ma cérémonie d'investiture et la fête de l'indépendance de notre pays en 2012. C'est donc tout naturellement que je l'ai maintenu dans ses fonctions en l'élevant au rang de ministre par décret 2012-435 du 10 avril 2012. J'ai voulu ainsi reconnaître les qualités personnelles de Bruno Diatta et ses mérites professionnels au service de l'État. Le ministre Bruno Diatta fut un homme de devoir, un témoin singulier de notre histoire institutionnelle, un commis d'État infatigable, fidèle et loyal comme dans un refrain synchronisé, j'avais souvent entendu dire qu'il devait écrire ses mémoires. Mais Bruno a fait plus que rédiger ses mémoires. Sa vie et son œuvre forment un livre ouvert pour qui sait lire plus les actes que les mots. Car finalement, l'essentiel n'est pas dans le verbe qui périt, mais dans l'acte qui demeure, Bruno n'était pas un homme du verbe, mais de l'action. C'est pourquoi, en ces temps de repères brouillés et de conscience souvent assoupie, sa mort nous interpelle et nous renvoie aux valeurs cardinales qu'il portait en viatique. Le civisme, le don de soi, l'humilité, le respect du prochain et du bien commun. Voilà le legs que nous laisse Bruno Diatta. Mon cher Bruno, ainsi vient l'heure pénible de la séparation. Mais avant de partir, je voudrais que tu emportes notre témoignage chaleureux unanime comme nos louanges. Je témoigne que tu as rempli ta mission avec classe, honneur et dignité. Je témoigne que, plus qu'un chef du protocole, j'ai perdu en toi un conseiller émérite, un émissaire habile des missions délicates un messager honnête, avenant et digne de confiance, un Sherpa clairvoyant, dont la lanterne flamboyante balisait les chemins improbables. Je témoigne que l'État et la République ont perdu un gardien du temple. Je témoigne que la nation a perdu l'icône emblématique de son cérémonial. Je témoigne que tes amis ont perdu un symbole de fidélité en toutes circonstances. Et ta famille, orpheline, a perdu un être cher, un époux attentionné, un père affable, un frère bienveillant. En ce moment d'épreuve intense, je réitère l'expression affectueuse de ma profonde compassion à l'ensemble de ta famille, à ta courageuse veuve, Thérèse, et à vos enfants, Guylaine, Yalis, Pierre et Olivier. Je leur renouvelle les condoléances émues de la nation. Je voudrais également, au nom de mes prédécesseurs, le président Léopold Sédar Senghor, le président Abdou Diouf et le président Abdoulaye Wade, en leur nom et au nom de la nation sénégalaise, te remercier du fond du cœur pour tes éminents services. Je salue avec respect ta mémoire. Le souvenir de ton œuvre impérissable restera à jamais gravé dans nos cœurs et nos esprits. En reconnaissance de tes bons et loyaux services, et pour t'offrir un exemple aux générations actuelles et futures, la salle du Conseil des ministres, siège de délibération des plus importantes décisions de l'État, et le grand amphithéâtre de l'École nationale d'administration porteront désormais ton nom. Nous te désignons également comme parrain de la promotion de l'ENA qui sortira en janvier 2019. De même, l'État accompagnera la réalisation du projet d'académie du protocole que tu portais généreusement avec euh, M. Babacar Touré. je vous ai beaucoup poussé pour la création de cette Académie du protocole pour partager ton savoir-faire. Mission accomplie, Bruno Robert Louis Diatta. Adieu. Repose en paix, ad vitam éternel Présentez Oh. À présent, le cercueil va être replacé sur le common car. Président Macky Sall avec oh. Euh, oh des mots forts, Omar. Absolument. Là, il présente euh, les condoléances à la famille, à l'épouse euh, de feu Bruno Diatta, à ses enfants, à ses petits-enfants, à toute la famille éplorée. Voilà, le président Macky Sall euh, leur témoigne de toute son affection, présente ses condoléances attristées. Et vous voyez donc le command car qui va euh, reprendre, sur lequel on va replacer justement le cercueil qui va ensuite euh, prendre la direction. waa kay jërë ngeen jeuf wa régie ci direct bobu nga xamné ne ngeen ñuko ko du jaajëfal suñu mbokk RTS yi ci signal bobu ñu jox DTV mi ngi nono aduna ngi noonu Birino jaata euh, ñeent fukki at ak ci walu état. ñeent fukki at ak benn ci protocole euh, président depuis Senghor jaar na fi mu ànd ak moom ci liggéey ànd ak euh, président Abdou Diouf ànd ak président Abdoulaye Wade yàlla jeexale mission ci président Macky Sall àddunaa ngi noonu yal yàlla may ak njabootam xolu muñ xam naa ne li ñuy fàttali gannaaw seede yi nga xam ne danañ bàyyi ku ne seede ko euh, génn na àdduna danañ ko seedeel waaye ñaan yi ci njabootam lañ ko war a jëmale en tant que ay jullit ku dul jullit bu génnee àdduna am nga droit jaale ko massawu njabootam waaye baatu yàlla na ko yàlla yërëm euh, sunu diine daf ñu koy tere muy lislaam kuy dund te bokk ak moom diine sañ nga koo ñaanal lu ne ci wërsëg ci wér ci xéewal ci jàmm waaye su xasee faatu nag lislaam danaan la yemal ci ay ñaan jaaleel ay mbokkam massawu leen ñaanal leen waaye ku dul jullit sañoo ko ñaanal loolu ak fàttali la goo xam ne ñu ngi koy fàttali birinoo nag euh, exemplaire la royukaay la nit ku nite nit ku yaru nit ku dal nit ku am sutura loolu moom làmmiñ ñi ñu ngi koy seede lisaanu maqaali lisaanu xaali tamit ñu ngi koy seede ñi wax ñi ngi koy wax ñi waxulit gëm nañ ko ci seen xol ne mësuñ koo dégg ci coow te yàgg na nag lool ci wàllu état ku ne jaar na fii ku ne ànd na ak moom waaye mosoo dégg coow lu ñu tudd moo xam ci wàllu alal la wala ci luubal yu ni mel ñu ciy faral di tudd léeg ñu fës ñi ci wàllu nguur kenn mësu ko cee dégg amul coow loo ko mos a dégg kenn du dégg baatam muy coow muy wax te xam na lu baree baree baree bari mën nañ ni bàmmeelu sekkere bu doon dox ci kaw suuf la lu ne mu xam ko te génnewul dara denc lépp ci sutura ba yàlla jël ko loolu nag ñi fi des ñoo ci war a jàngee ñoo ci war a jàngatee meer Thiam mu mel ni xamoon nga birinoo balaa ñoo ñëw ci Modou Mbacke euh, këru yëglekaay euh, kon ñu ngi may wax ne Modou Mbacke sax far na lii remplacé ko ñu ñëw rek ci ay seede balaa ñoo dugg ci sunu tem mel ne xamoon nga birinoo lan nga mën a seede ci moom. bu baax di nuyu. famille Bruno Diatta bu baax a baax di leen jaale ñoom Olivier xam naa ko à travers un grand homme muy Amadou Mbayloum un journaliste dafa dëkkoon Ziguinchor te aussi sama goro dafa liggéey ak Abdou Diouf plus de quarante ans Bruno était son ami aussi mu nit ku baax lenn laa xam ne daal moom téye na gémmiñam ci li ma seetlu ku téye gémmiñam kenn mësul gis Bruno mu wax am na loyauté am na rigueur puis noppi na euh, Oustaz Matar mhm. Bruno dafa liggéey ak Senghor pare ñëw ak Abdou Diouf te Abdou Diouf xamul lu Bruno doon def ak Senghor mhm. mu liggéey ak Ablaye Wade Ablaye Wade xamul lu Bruno doon liggéey ak Abdou Diouf xamul lu mu doon liggéey ak Senghor mhm. boobu ñëw ci Macky Sall te Macky Sall mi aussi xamul li Bruno liggéey ak président yi passé yi jiitu kon ku téye gémmiñam la woon muy un homme nga xam ne léegi da ngay gis nit ku wax dara ñu diw moo ko wax ci télé mais du ci réseaux sociaux yi du fenn foo xam ne nii rek mos ngaa dégg Bruno Diatta mu wax xam naa de ci lu mu jàng ak fu mu jaar jàngal nañ ko téye gémmi te moom defe naa su waxee na tukki ndax li mu xam bari na mhm. ndax ku nekk ak Senghor ba léegi mhm. après indépendance ba léegi nga nekk ci réew mi ak réew mi li fi jaar yi mhm. fi am ay métit ay coono ay wax ay jëflante yu ñaaw ak yu rafet te Bruno mosoo dégg mu wax te Diouf bu muy dem dafa ne président Abdoulaye dénk ko kenn ma ne ne ko recommandé naa la Bruno xam nga kon lu tax mu wax ko loolu lu woo te xam ne yow chef d'état buy dem la nga ni kii la war a remplacer man dénku ma la kenn mais recommandé naa la Bruno jaata kon xam na ne kooku set noom homme mm-hmm. kuy gis kuy xool am d'état gis ku loyauté rek boo jàppee Bruno Diatta xam ni moom la tey nee naa Sénégal yëpp waroon dem ci levée du corps ba gunge ko ba fa mu jëm mm-hmm. nit ku baax nit ku dal ci Amadou Mbaylum moo tax man ma xam ku ne xam ne Amadou Mbaylum hmm. su mag boobu ñi nga xam ne Ziguinchor Dakar rek la doon liggéey hmm. loolu moo tax ñu xam ko dama hmm. daan dem Leclerc ma koy seen man mun ma kii mooy Bruno Diatta te la waxee moom tam doon nit ku baax xam nga ku xam Amadou Mbaylum xam ni war ngaa xam ñeneen noonu laa ko xamee mu nit ku baax ku téye gémmiñam ku téye gémmiñam dama foogoon sax danga naan sax du wax geste rek même ses yeux la ay geste lay def te bu xoolee ñu xam gis nga Diouf su daan dem tournée économique ci région ci àll bi moom dina fa dem ba pare rek la situation ba pare nga xam ne Diouf su demee du am benn gàllankoor du am benn faay noonu la liggéey ak président yi maa ngi koy jaale ñëpp di ko jaale madame di ko jaale ñoom Olivier di ko jaale àddina bi yëpp di ko jaale réew mi di ko jaale surtout nag waa Ziguinchor mm-hmm. di ko jaale bu baax ak waa Pakao mbokk mi ne mm-hmm. d'accord jërëjëf Cheikhouna euh, euh, yan témoignage ngay def ci Birino gannaaw sa nuyoo waaw xanaa ma waxaat monsieur le maire Chara bisimilah xam nga émission bi xam nga di nuyu ñëw bokkal plateau bi nuyu Sénégal yi nga seetaan émission bi. Mm-hmm. Euh, par rapport ak euh, Bruno li may mën li may wax rek mooy que ni c'est nomage hommage mérité nit bi toll na ni nit bi jar na ko. just rek pour wax ni que ni tey sénégalais dañu war a jàng lu bëri ci tey nit ki tëdd parce que tey soo seetloo tey sénégalais yi fi mu toll fi ñu toll mooy lu nit xamal boppam rek moromam rek mm-hmm. wax ko.

pour wax ni rek ni mise à part nit ki mais liggéey bi nga xamante ne moom la doon liggéey parce que man j'ai eu la chance tey ma bokk ma benn jamono ma ma bokkoon dojo ak ñoo xamante ni ñu bëri ñoo def secrétaire projet ma ciy remercier ma ciy euh, félicité au passage euh, Vieux Sandiari Seck mi nekkoon garde corps Idriss Seck c' est des yoo xamante ni tey su may xool bureau man damay retrouver nit kooku dama ko gis si moom parce que yaram parce que kersam et tout tey da ngay gis ni que ni tey parce que nit ñi Sénégal yi ba dañu jàpp ne sécurité rapprochée affaire doole la affaire ni benn kii ba tey soo demee sax da gis benn waay juy dem fenn dem jëli ji benn mbër te fekk na c'est un métier liggéey la boo xam ne xam-xam dafa nekk ci ginnaaw. xel xel a mm-hmm. xel am na mais xam-xam. Mm-hmm. dafa nekk ci ginnaaw. parce que sécurité rapprochée sécurité rapprochée ay technique la. Mm-hmm. yaa ngi comprendre yu bëri yoo xam ne daf ci nekk te tey mu nekk koo xamante ni aussi fierté wu Sénégal la euh, tey aussi. suñu demee ba xam ne ni tey président France dafay ñëw chef de protocole am tey di ko ndamoo di ko puukaroo dafa nekk loo xamante ni fierté la bu mag Sénégal ñu koy jaale Sénégal yëpp nag xam nga di ñaanal njabootam di ñaanal euh, soxnaam xam nga li fi bàyyi suñu borom teg ci loo xam nga voilà macha allah mm-hmm. macha allah am na solo fierté la macha allah ñi ngi koy jaale comme ni nga ko waxee mbokkam yëpp am na sama benn jigéen buy liggéey Nations Unies euh, aussi di jaale di ñëpp ñi nga Sénégal dañuy mm-hmm. parce que tey boo seetloo sécurité rapprochée dafa jékki-jékki def benn ngi jeunes yi commencé intéressé wu da mhm. ngay gis ay koy def comme ay vieux sandier da koy def ay formation di si joxe ay diplôme et tout mhm. tey jeunes yi gën nañ ko jël en compte parce que tey rendre compte que ni tey xam ko jaale euh, ñëpp ñi nga xam nekk ci biir milieu boobu noonu sama gars yi ñoom Birane Youssou Boy xam nga mo sec institut ñoom ñëpp xam nga d'accord euh, di ko ko jaale sunu sunu jigéen boobu mi ngi nation jeunes yi li ma jot a xam akas néew ci bi muy dund ci euh, doxalinam ci moom laa ko xamee mm-hmm. ba bu yàggul rek bi mu ñëwee Sénégal ci la mu wax yu bari waaye li ma gën a frappé mooy respecté guñ ko respecté woon mm-hmm. ba amul fenn fu muy yëkkati téléphone am woote lu dul taxaw nañ ca lam leen sant pour ñu def ko na mu gën a gaawee mm-hmm. te bi may wax looloog léegi matagul trois mois ci ginnaaw loolu nag ma ne ko yombul ci Sénégal ku ñu respecté noonu ci la may wax lu bari ci dundam waaye taxaw gu mu taxaw tamit fameem ak bëgg bëgg ay mbokkam loolu yëpp euh, xam naa ko ci moom te boobu mi ngi mi ngi dund mhm. te mi ngi jaaree ci suñu jigéen boobu ñu ko koy jaale bu baax a baax Oustaz Habib dooguma la sax est ce que xam nga mook suñu xalifa bi ñoo dëkkoon almaxtum sëñ Cheikh sëñ Cheikh ñoo mm, dëkkoon ñoo taxaloon kër mu def ko doom da koy wax ne yow ku mel yow mosuma ko gis du ne mosuma ko gis waaye gëj naa ko gis loolu ko doon wax moom ñu baax ñëpp respecté nañ ko macha allah euh, Oustaz Habib Sall ñu bàyyi la nga nuyoo ak euh, li jaal léegi lan nga ciy dolli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 ñu leen ndokkeel bu baax a baax commencé ko ci sëriñ Maxtaar ak mboolem ñu ñu bokkal plateau bi di wax rek ne lillahi ma axada wa lahu ma aata yàlla moom moom li mu jël moom moom it li mu fi bàyyee ndi yàlla li mu jël moo ko moom li mu fi bàyyee ndi moo ko moom kon yëfam la jël li ci am solo te nit mbokk yi wax ko ci muy ay qualité yoo xamante ni moom takkaayoo woon na ko moom Bruno ñu fexe ba ñu mel ni ñun ñu fexe jël ci bu dee benn jikko sax nga jàpp ko ci ay jikkoom roy ko ba jikko boobu dem ba nekk ci yow lu am solo lay doon barakallahu li ñu wax li ma ci gën a intéressé man mooy nitu sutura nit ku discret lu am solo la ci doomu adama dañu wax ne waxtaanu biir ku ko wax ci ëtt ba tase yaa tas waxtaanu ëtt ku ko génnee ci pénc yaa tas pénc ma li kulli makaanin maqaal wa li kulli ma waafaqa al xaal xam nga ku dem ci dëj di fa waxtaan waxtaanu ngénte buñ la sébul jéppi la mu xam mu nekk ku xàmmee lu ne ak fam koy jaarale lu ne ak fam koy teg lu ne ak ni mu koy doxalee te làmmiñam alhamdulilah ala zalik sidna ali def ne assirru faktumhu wala tantiq bihi inna sujaajata kasruha la yusaabu ne secret dañ koy denc kenn du ko publier mu ni secret bu tasaaroo mu ngi mel ni bu bouteille feer bu toj kenn du ko suude kenn du ko ëw kenn du ko ñaw toj na rek jeex na yàqu na mm-hmm. noonu la mel mm-hmm. kon nag tabaarakallaahu fexe jël boobu rek mm-hmm. roy ko ci moom am bàmmeelu biir di wax farata tey noppi di wax farata tey noppi te li ko ko may yëpp nag mooy itizaal mooy nangoo beru di wéet waaw ala xalla man yaxlutu nnaasa saamitan wala budda min qiilin wa qaala yaribu maam Cheikhul Xaaji Malik nee na néew na koo gis muy jaxasoog ay nit lu bari karam place bu tas mu dem ci keneen ku mu seeti bu jógee këram dem kër keneen du mën a ñàkk rek mu ne e dégg nga di wax wala yow est ce que yaa ngi bàyyi xel ci nangam seetaan nga nangam donc yooyu tabaarakallaahu yal na yàlla doole ñu sutura amiin yaa koy jaal mboolem famille am mm-hmm. ko jaal président de la république ak mhm. mboolem gouvernement bi mhm. góor ak jigéen mhm. jërëjëf jërëjëf Oustaz Habib Sall ñu nuyu ko moom it ziyaara ko dalal ko euh, di ko masawu coono yi ndax mi ngi bàyyeekoo ba Mbuur euh, nekk borom xam-xam euh, dalal nañ ko fi ci ginnaaw macha allah mu indi fi lu am solo ñu sàkkuwaat ko mu teewaat ñu sant ko baax gërëm ko ndax Mbuur moom du kër meer Thiam <laughs> macha allah sori na oto yi tamit tali yi xat na ñu sant ko bu baax gërëm ko su ko defee loolu moo nekkoon première partie bi ci ndénkaane muy delloo guñ doon delloo njukkal ak di jaajëfal euh, gaynde baat bi ñaan oh, gaynde lion bi ñuy bàkkoo moom moom mérité na baat boobu dëgg dëgg mérité waaw xam nga si témoignage yi ñu def xam nga benn élément mm-hmm. au juste waa këram ak dëkkandoo yi def benn témoignage mm-hmm. témoignage bi ñu def si moom dafa ute ak nit ki ñuy gis ci télé bi maanaam moom mënoon a dissocier mënoon a tàggale personnalité maanaam bu nekkee biir di liggéey ak bu yegsee biir këram la personne de Bruno Diatta tey bu duggee biir këram ku nooy la ku flexible la kuy waxtaan la koo xamante ni ku dugg biir këram mu yaata la mhm. mooy maanaam bu génnee ci cadre liggéeyam tey am na ñu bëri ñoo xamante ni tey dañuy gis dañuy wax sax kër kër soldat la bu nekkee camp ba nekk soldat bi kër gi nekk soldat bi léeg-léeg mhm. nit ki mën na génn mën na maanaam nit la boo xamante ni mënoon na nekk ci benn kooku xam ne loolu liggéeyam la mhm. mais su ci génnee mhm. génn ci bu duggee këram tey loolu mooy ràññee rek ràññee la ak ku nite la ñaari baat yooyu mooy firi li nga wax mm. ku ràññee ku nite mooy kii xamme new ak kew waaw ak kew bokk nañ ew gi waaye nag bokkuñu mm. new new la kew kew la loolu nag ràññee moo koy mayee Euh, bi nga takkee grade bi war a incarner grade beeg bi nga futtee grade bi war a ak société bi uh-huh. ñaar yooyu nite mooy may nit ki ràññee ko kon nañ ko nañ ko roy euh, ñun rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk ci géewu politique bi oh, tey ñu ngi wax politique bi salte na bu uh-huh. ko wax ñu naan moo gor moomu ko lii laa uh-huh. yooyu yëpp euh, ay leçon la saagante bi xasante bi waxante wax ju ñaaw ji yàgg-yàgg tamit fii rek mooy mujjuwaay bi lamin Gueye ba mu faatoo Cheikh El Hadj Aziz wax na ko biñ koy fàttaliku teg nañ ko fii ana garaat ya tey birinoo tamit moom la ñuy wax ana garaat ya ana respect bañ ko joxoon mu daan joxe ordre defal nii ba ci président ku mu wax jaaral nii nga jaar fa tey mu yooyu yëpp jeex na mu nga ne dañ koy yëkkatee ka tëral sëriñ bu nekk génn fi àdduna daf nga loolu seetlu boobu li mm-hmm. sénégalais war a gën a jàngat mm-hmm. mooy liggéey ba pare fullaal sa liggéey parce que liggéey nga teg ko ci yoon dafa am solo mm-hmm. sénégal ba sénégal ba léegi hommage ñett nit lañ ko mës a defal Lamine Gueye Senghor ak kilifa bu nekk nag génn mais moom lan moo ko may lan moo ko mooy wane ni que ni liggéey aussi nga am sa liggéey nga fonko nga yoonal ko nit mën na cee am lu ne tey kilifa bu ne muy ci diine muy ci aada muy kii am na te hommage national bi am ko kon c'est des yoo xam te li ñu war a jàngat ci moom fan la jaar lan la mel ba ban nan la mel ba war a mën a am lu mel nii d'accord am na solo am na solo ñu dugg ci thème bi Euh, kon dañu dem rek euh, ànd ak waa jeunesse kiis ñu dellu te dugg si ci sunu thème incha allah tey lañ koy tëj. waa kay jërë jëf euh, macha allah loolu moom lañ doon ubbee. ñu dugg si nag ci fi ñu nekkoon semaine bee lañ ko dooroon doyul ñu delloo si ko ci semaine bi ba léegi sax doyul ndax euh, luñ ci wax rek am na lu des soxna yi moodu moodu yi boroom kër yi tamit euh, faatu faatu yi ñaar yooyu yëpp waxtaane nañ ko fi mu nekk loo xam ne lu yaatu la ci tukki bàyyi fi soxna di fa yàgg lool léeg ba mu jéggi dayoo ñen ñi dem ba mënatuñ ko muñ ci jigéen ñu ñaan baat dem delu seen kër ñen ñi toog di ko muñ ak xol bu sedd guy ñen ñi toog di ko muñ ak xol bu naqari ndax nang leen baye fang leen bàyyi ñanu nekkal gëj laa gis gëj laa dégg euh, wala sax ñu ngi lay dégg mais gëj laa gis mais fa nga nekk wala fa ñu nekk ñanu nekkal moo xam goro la ay magu jëkkër la ay rakk la mënuñoo déggoo léeg-léeg ci situation yu mel noonu la soxna moodu Modou di dund wala sax léeg-léeg seen jëkkër mën nañu toog ay fan duñu ko dégg lam leen doon yónnee wàññi na ko ne dañoo mën a yàq léegi lam leen doon jox ci seen yaay la koy jaarale wala ci seen frère moom mooy seet lam leen di jox yooyu yëpp ñu ngi koy dund muy yu doy waar yoo xam ne dañ ciy dellu siwaat tey nag tënk la ndénkaane la lan la ñuy wax soxna yooyu noonu le lan la ñuy wax borom kër yooyu noonu le soxnay Modou Modou yi lu leen di wax borom këru faatu faatu yi lu leen di wax ñi seen borom kër tukki ak ñi seen soxna tukki bàyyi leen ginnaaw ñoom ñëpp ndénkaane yi ñu leen di jox tey lan lay doon dañuy bàyyi rek seexu naa mu ubbeeg nun euh, ñu ñëw ci euh, Oustaz Habib maire Thiam fan yii yëpp mi ngi feeg nun lekkaloog bi su ko defee bu ñu joxee seexu naa mu ñëw euh, mi ngi fi woon bële paase semaine bii tamit tabaarakallaahu dana mën a yaatalaat débat bi yi ñu fàtte woon mu dugal ko yi ñu waxtaanee woon mu fàttali ko waaye nag jox ay conseil yu dëgër ñu nekk bitim réew ak ñi nga xam ne ñoo des fii ci biir réew mi seexu naa mhm. waaw euh, sa Makhtar moo xaat on sila ministan ji bismillah rahmaan rahim euh, par rapport ak thème bi li ci waxoon rek xam nga démb wax naa ci par rapport ak euh, solitude mais par rapport ak tey damay ñëw ci espoir bi yaakaar bi parce que yaakaar bi dafa bëri ay aspect tey jigéen ki mën na yaakaar ni tey jëkkëram tukki na mais léegi mu ñëw mais am na ñoo xam te ni yaakaar loolu yëpp am na ñoo xam te ni xaalis bi lañu yaakaar parce que am na jigéen bu bari boo xamante ni tey buy dugg ci sëy bi jëkkëram mu ngi nekk bitim réew moom mu ngi jàpp ni que ni tey waa ji koy takk mu ngi bitim réew jeexalul dara mhm. tey am na koo xamante ni dugg na ci sëy bi gisatul jëkkëram mais liñ koy yóndee la xeeb te li koy indi man mooy gëm-gëm bi ma la ko koy indi bokk na ci

parce que tey man damay ñëw Sénégal ñu fekk fi benn xale bu jigéen muy Ngoro ak Oustaz Matar ma ñëw wane ni kër yor naa tuuti gëmloo xale bi loo xamante ni lu bëri nekkul ñibbi dem bitim réew takk ko parce que lan maa ngi naan que ni su ma ko fi bàyyee moo booy bi ma ko bàyyee que ni relation bi nangam ak sàngam ma profité takk ko tey façon takkit yooyu noonu aussi dafay causer problème mm. nga dem toog yow jigéen boo xamante ni xamula xamul xamantewu leen noonu xam nga relation bi demeewul noonu kooku aussi pour mu toog muñal la dafay dafay dafay metti parce que tey su fekkente ne amul li nga xamante ni moom moo ko war a moo ko a téye ci sëy bi yëpp mooy soubassement wu sëy mooy kalan éducation parce que une personne ne peut donner que ce qu'elle a doomu aadama mënut a joxe lu amul bu fekkee doomu aadama moom jigéen bi moom en quelque sorte yaruñu ko ci euh, ci ngor yaruñu ko ci diine yaruñu ko ci téye sa bopp ci fulla ak fayda parce que tey am na loo xamante ni jigéen suñ ko ci yaree rek am na yu bëri ko du ko sañ a def mm. beneen que tey góor tey sooy takk jabar tey góor warut a takk jabar ci yenn condition yi parce que tey dama leen si def remarque jeunes yu bëri suñu takk jabar dañu koy takk ko takkul kenn diw takk ko parce que man pour que tey sëy mooy li may wax rek chaque boo xam ne dafay jë bu fekkente ni jaar na leen a daf leen war a yóbbu ba keroog yomal xiyam essien commun ngeen layoo ko suñu borom kon c'est des choses yoo xam ne ki ngi ciy àndal da nga koy taf tafee lu tax yi ñu bëri léegi ñu bëgg soxna euh, faatu faatu lu wax nañ ci ci semaine bi dañ ciy dellu siwaat léeg-léeg yu bari naa dafay juddoo mhm. da ngay toog fi nekk jeune man moom jabar ju nekk Italie laa bëgg wala ju nekk France wala ju nekk Amérique jigéen ñu nekk foofu tamit duñ ko bañ mhm. ndax bu ñu sañoon am jëkkër mhm. euh, jaamu yàlla comme ni koy waxee mais léeg-léeg problème yi ci am mooy euh, takk nañ la nga lijjantil waa ji ba mu ñëw foofu trahir la wala waa ji nekk fii bëgg lu yomb jàpp ne lépp yaa ko ko war a gérer moom dara waru ko euh, Oustaz Makhtar nga baal ma ci ñi ma ko sañ a war gis nga tey àdduna fi mu toll muy góor muy jigéen nit ñi ñoo melatul ni ñu war a mel valeur yi waroon nekk ñoom moo newatul ci ñoom lu ëpp tey ci ñenn ci góoru Sénégal yi amuñ jom parce que ñàkk jom pour man mooy que déjà benn da ngay dégg ay jeunes di wax ne man du ma takk cas social moom maanaam suy takk jabar jabar daf koy tànn en fonction de ah. tey euh, xale bu jigéen bi am na dara mën na dara mu ngi bitim réew mu ngi naan sax moom tàngatul parce que tey jabar soo koy takk waroo ko takk ci condition yi noonu parce que tey su fekkente ni tey da nga takk jigéen si condition boobu noonu yow li nga ciy xaar mooy lan yow xaaroo ci dara yaa ngi xaar que ni la majeure partie góor yi lan la mu ngi koy xaar ndaw si am kayit nationalité mu tukki wala mu ngi xaar te ni ndaw si di ko jàppale ci Sénégal ndaw si mooy liggéey di ko yónnee xaalis ainsi de suite yooyu c'est des choses ni warul ko jiital ci diggante moom ak nit surtout koo xamante ni da di sëy parce que déggoo li mu la tey sëy dafa dem ba toll foo xamante ni Sénégal ñaari waay dencante yi nawlootuñ nawlante wuñu loolu mooy problème mu sëyu Sénégal yi tey bu njëkk nit danaan am jëkkëram naw ko da nga naan gis sa yaay bu daan wax sa papa da nga naan que kii mais noo tiens attends mais léegi tey da nga gis xale bu jigéen tey seetlul tey damay toog ci da ngay dugg ay teere Dakar yooyu noonu ngay déglu di xool jigéen ñi li ñuy wax soo tapé woon léegi xale jigéen la ngeen di xalaat ci góor yi ñu ne la fen rek soo tapé léegi jigéen la ngeen si góor yi la ngeen xalaat ci xale jigéen ñu ne la fen la même chose mooy que ce qui veut dire que ba nga xam ne Sénégal nit mm-hmm. te amul ci diggante ñaari waaye dencante yi pour ñu muñalante lu bëri wala kenn ku nekk do parce que sa jabar dafa am bët bu mu la war a xoolee yow jëkk dafa am bët boo ko war a xoolee mais tey su demee ba nga xam ne loolu noonu amul y' a problème loolu nag mooy indi problème yi nga xam te ne moom mooy am yëpp. d'accord mais mhm. mais li ci gën a important li ci li ci gën a graaw mooy que tey dafay dem ba benn sëy bu takkoo ci mbir yooyu noonu si genre mel noonu mooy dem ba benn instant nga gis li am ci dëkk bi ngi gis adultère bi fi nekk nga nit ñi jigéen ñi mais aussi foofu li may dégg aussi euh, moodu moodu yu bëri parce que da def seetlu ni tey saa yu problème amee rek ku jigéen ki moom moo ciy gën moom moo ciy gën a loru mais tey en partie bien vrai que ku jigéen ki moom mooy responsable mais tey ci dina am ku góor ki dina ci am part responsable bu ndaw parce que tey man pour man da gis léeg-léeg benn jigéen wax nañ jëkkëram day tukki yàgg àll gis nañ fi ay cas mu dem ci sëriñ di ñaanlu sëriñ bi du ko jublu ci boppam di tëdd ak moom ba mu am ci doom waa ñu woo ko ne ko sa jabar ëmb na mu xëy fase ko man pour man góor warut a fase noonu jabaram ci condition yooyu noonu parce que man pour man nit ki bu ñu la waxee dara balaa ngay def dara war nga jël paramètres yëpp war nga bàyyi ba yegg si Sénégal ba xam lan la lan moo nekk ci ginnaaw ëmb sa jabar tey dugg tey am na ñoo xamante ni tey dañ ciy dugg fas seen jabar pare dem ba ci biir xam ne que ni def nañ ay erreur hmm. peut-être yoo xamante ni seen gàtt xel moom moo koy moom moo aussi il faut que hmm. dawal yërmande par rapport ak lu bëri mais sóoraale yu bëri hmm. parce que yu bëri mu ci yoo xamante ni daf ciy nekk léeg-léeg nga gis koo xamante ni jabaru frère am moo frère jëkkër ji moo koy drogué mhm. nga gis koo xamante ni institut yu ay yirim kaam la ñuy doon di maye ataaya ki soow dégg nga <laughs> d'accord yooyu yu mat a bàyyi xel la pour foofu rek damay fàttaliku lu ñuy nettali ne waa ji dafa nekk bitim réew bi ñëwee fekk soxna si yu mel noonu dal ko mm-hmm. muy xaataraay no koy fase bàyyi ji ko ko dama bëgg nga waatal ma ci yàlla mm-hmm. at yi nga def bitim réew yëpp ndax yaa ngi téye woon sa bopp mm-hmm. mosoo seq ak benn jigéen naka su dul noonu mu ne ko ah loolu de papa mënuma ko waat mu ne ko kon téyel sa jabar te suturaal ko mhm. euh, du encouragé jigéen ñi comme ni nga ko waxee Oustaz mhm. Mouhamed doon ko ko doon ko fàttalee mhm. pour ne seen jëkkër dafa tukki yàgg fa rek dañoo war a def naka sudul noonu wala yaadu billaa musiba gu bon a bon la waaye tamit yu mel noonu bu gaaree ñu jàngat yi nekk ci ginnaaw yëpp yow lan moo ci sa responsabilité yow mi tukki Euh, un mois nga def ak fii sa soxna gannaaw bi nga ko takkee muy xale bu ndaw nga dem mu topp la dikkal dikkal dikkal nga tëne doo dikk ndax ñemewoo ñëw ndax amoo kayit bu demee ba yenn xew nag jàngatal lan moo ci sa responsabilité yow mm-hmm. euh, ndax kullukum raain wa kullukum masulun an raiyatihi oustaz Cheikh Habib mm-hmm. euh, ñi ngi waxtaanee soxna yi nga xam ne seen borom ko dafa tukki yàgg fa bàyyi leen fi ak sax góor ñi nga xam ne léegi phénomène la dañu am soxna su nekk bitim réew Euh, léeg-léeg ndaw sa tamit du mën a ñëw waa ji nga topp ko lijjantil mu dem ñaari yoon ambassade ñu dàq ko waa ji tamit taxaw fi mu taxaw mënu la ñëw yow tamit nga mënoo ñëw tiraillement bu métti léeg-léeg dafa am ak yenn yoo xam ne mi ngi ci biir yooyu noonu yëpp nan nga koy nan nga koy jàngatee. Euh, alhamdulilahi rabbil alamin euh, ñu ngi sofaat sunu wax rek ci seen wax. fi ngeen daaneel fa la ñuy mën a jëlee dem bi góor ñi dem toog walla di góor ñi nekk fi jigéen ñi dem toog am na salbiyaat waaye am na ijaabiyaat mooy am na lu positif mais am na lu négatif aussi dem nag ñaar mën na koo waral mooy dem uti xam-xam wala dem uti am-am ñaar yooyu mooy am même kii dem te jàngul di wër di def ay kii yëpp xam-xam lay ut am na xam-xam boo xam ne des ko fekk ñu bind ko ci benn livre da ngay dox teg ci sa bët am ko am na ñoo xam ne loolu moo leen fa yóbbu da ko xam ne nag li ko fa yóbbu mooy li Seydina Aliin waxoon ne wa ida raayta rizqa dooqa bi baldatin wa xashiita an yadiqa almaksabu farxal فأرض الله واسعة الفضاء طولا وعرضا شرقها ومغرب من بو فيك دنجا جسن دنجا جسن دك بينا نك سورسك خط نفا جفة فلول فاغوتيف جفة لفا لول من دف درا سيدنا علي ني دنجا جيما لخص nga jógee wala ci dëkk booba dem ci beneen gox soo ko defee yàlla mën na def tawfiq mu nekk sa gox wala mu nekk sa dëkk mhm. ba ya nga nekkoon ci ay jafe-jafe yëpp nga jugee ci mhm. am na ñoo xam ne looloo leen waral ñu jugee fii dem mhm. ba ñu demee nag ñu am yu ñu fa jànkoon teel gis nga lépp lu am ustaas mu ngi am bi iradatillahi bi machiatihi wa qadaihi wa qadrihi il faut nit ñi di def introspection maanaam di delluwaat ginnaaw di xool te bu ñu amoon sakkina mooy ñu dal ñu dal ci ñaari cas yëpp góor ak jigéen ñi ñu dal ku ne tekk rek tekk wan la yoon su problème amee rek dalal ne tekk xool bu baax ne tekk dal boobu ngay dal maanaam sakkina bi ngay àndal xal ban wa gis man maanaam sa jëmmu dal sa xol dal ci ngay demee ba am feuille de doo wax looy rëccu après doo ko jëf lu jafale la nag mhm. mooy gis naa ne mbokk mi kat bàyyikoo na fii nekk sama soxna dem bitim réew toog fa mhm. ba mu demee dafa am lu mu uti ba mu demee la mu uti yàlla defal na ko tawfiix ba jàppandalal ko ko mhm. ba pare may ko ay këyit yu mën a dellusee mu toog un an wala mu toog lu ëpp loolu ñëwul ñu gëstukat ba xam ne kii kat bakkenam moo ko fa téye li ko teree dellusi du problème mu kayit ndax yàlla may na ko ko mhm. li ko teree ñëwit du problème mu koppar ndax yàlla am na lu mu ko ubbil astuut mhm. ñu ne aku kat comme bakken moo ko fa téye nafsu bakken bakken bi mooy lan mooy danga am foofu sa xurriya sa liberté kenn du la teg benn pression ci len kenn du la contrôler ci len kenn du la lijjanti li naan amul yàqalaate bul ma yàq picc moom boppam garab gu ko neex lay teg waaw bul ma yàqal waaw yàlla defalu la tawfiq ba am lu mu toqal ci sa xol ba nga bàyyi xolal euh, wa si xaybatin yawman yaudu إلى دار الخرار لدى الإخوان والوطن كدم كنة ورنا باي خيل ديلو سيوات يسندور نينا فل موي توكي واي فايدة واي دم موي توكي واي فل موي ديلو سي فايدة فجوم فايدة moy dafa joom ne ne ful la waye fayda moy delu ci fayda moy delu ci xam nga ful ak fayda moy lan fadlu fadlu bu olof yàq la muy ngëneel fayda muy faida mooy njariñ nit nag bu amee ngëneel am njariñ du foyee boppam léegi nag ña fa nekk il faut ñi fi nekk nag comprendre leen léeg-léeg oustaz ñi nekk fële dund fa lu metti dund fa lu metti ci problème mu dëkkuwaay ci problème mu liggéey ci problème mu lijjanti lépp dëgër su ko defee nañ ko may benn diir déglu ko bu ñëwee nag ba gis yooyu yëpp yàlla def na ci tawfiq mhm. mu lànk continuer ca la mu nekkoon mhm. ñu xam ne bakkeen la nag moo ko fa téye moo ko fa léegi am na ñoo xam ne oustaz fii lañ nekk sax demuñ bitim réew mhm. euh, ñu ngi dakaar mais léeg-léeg ñu toog ba un an soog di dem ci seen soxna phénomène yooyu yaa ngi koy seetlu wala da gis ku nekk fii dakaar man Makhtar Sarr sama soxna ma nga Ndramé Escale mais tabaski ba tëbëski laa fay dem wala korité ba korité laa fay dem ndax loolu c'est normal wala bu fekkee ne amul benn ngant bu ko feteree dem nit ki léeg-léeg mu dund loo xam ne moom mooy xam la koy empêché ba du fa mën a dem. sa dara am escale fii rek fii rek ak fii. waaw nit ban dund moo la si te ba ngay dem at baat mën na am non horaire bi paas ñàkkul paas de. Euh, oustaz. mën mm. na nekk nit ki am ngànt parce que euh, balil insaanu ala nafsihi basiratun mm-hmm. nit ku nekk moo gën a xam boppam moroomam. Mm-hmm. li empêché. mbokk mi bala mu waroon a def defu ko balaa ñu jékki-jékki teg ko toor ne ñu indi njort bu rafet njort boo xamante ni njort bu rafet lay doon ah sawaay boo demee nanga ma tax demul dëkk ba nangama ko empêche mën a doon lu nekk mais booy xool li ëpp ci nit ñi bakken moo leen ko yóbboo ak jubadi jubadi yalla ñu yalla mussal ci lëndëm mm-hmm. lëndëm dafa bari ñu lëndëm mm-hmm. dafa bari ñu lëndëm mm-hmm. buñ la waxee fële fasa fa nek bo tijjee ginaar nga fay fek lëndëm lëndëm baxul moy waral lool mu nek nak ben ak bu dox sa digënté ak kila yalla yàlla est-ce que du euh, manam parents yé ko def ñaarel Mm-hmm. ndax genre yirim caam gi mm-hmm. léeg-léeg seen aawo yooyu seen papa moo naan leen takkal doomu diw wala sa yaay moo ne la takkal doomu diw mm-hmm. ñenn ñi ki ñu leen takkal xaqiqatan dañ ko bëggul carrément moo tax buñ ñëwee fii dañ fa sawar a dem wallaahi loolu beneen beneen beneen affaire la kooku lu mu ah, loolu beneen hmm? affaire la la joxee kenn nga xam ne bëggoo ko kañ fase ko mm. loolu boo ko fay di ko amee àq kooku bu defee naka su dul yow ah. mu def mu daaree loolu beneen affaire la xaq la. sama papa ko takkal wala sama yaay na fa toog di ko liggéeyal. bu nit booy jur mën a yoreel doomam yoreel boobu mu yoreel doomam àq doom bi wëlbatiku yoreel doomu jàmbur àq ñu xool ñu xool nit ki warul sëy ak kum bëggul moom mu bëgg ko jaal naa baynakum mawaddatan wa rahma mawadda day am ala kulli xaalin su da amul rahma du am te ñàkk rahma ñàkk yërmande boobu mooy waral nga mën a toog un doo fa dem nga mën a toog un doo ko defal nga mën a toog un doo ko dégg nga mën a toog un doo ko lijjanti doo ko toppatoo ku ku am xolu yërmande du ko def te boo amoon mawadda rek rahma day ñëw maanaam soo ko bëggee mu bëgg la rek faaw nga yërëm ko léegi te ñenn ñi yar nañ leen ba nga xam ne duñ ko jàmbat duñu ko jàmbat am na jigéen ñu yar ñu yaru Euh, meluñ ne caapa ñaama ñoom liwis mm-hmm. <laughs> moom laa ñeme mm-hmm. euh, boo toogee ñoom benn fan ñaari fan woo leen moom euh, da leen woo foor soo la nga seet noo def mm-hmm. mais am na ñoo xam ne ay ay kinne saar lañu dañoo yaru yar nañ leen ñoom toppatoowuñ loolu bu ñu xëyee danañ dem la leen war ñu def ko ngoon ñu def ko bu ñu la déggee baax na buñ la déggul ñoom ñu ngi sëy seen sëy ndax loolu lañ leen yaree am na góor goo xam ne tamit ku mel noonu dafay mel ne la sawar pour di ko teg lim koy teg ndax du jàmbat dara lu metti la mhm. lu jar bàyyi xel la yéen mhm. lu jar bàyyi xel la parce que oustaz àq dafa doy waar te àq dafa sew d'accord dafa dafa dafa nëbbatu mhm. nit mën na yoreel nit àq te du ko yëg mais am na àq yoo xamante ni si jar na moytu bu baax a baax a baax a baax parce que dina tardel nit ki nit ki ko jël soxnaam nga teg ko ko di ko maltraité d'une façon boo xam ne extra extraordinaire di ko maltraité ci côté bu nekk nag di ko toroxal donte toroxal bi du nekk ci nit ki dina c'est-à-dire que nekkul dañ da ngay toroxal nit ki rek mooy da ngay jàkkaarloog moom def ko wala nga wax ko lu ko toroxal mm-hmm. di ko bañ a wax dara fekk yaa ngi koy toroxal mm-hmm. yaa ngi koy toroxal mm-hmm. nekkoo leen non seulement mais yaa ngi koy toroxal parce que ni koy toroxalee mooy nit ki war dalay soxla Seydina Omar waxoon na ko mbokk saxaaba yi bi mu nekkee ci xilaafa gi dajale jigéen ñi ne ñaata weer ngeen mën a toog muñ ko seen jëkkër yi ñu ne ñii ne man nangam ñu ne nangam ñu xool li gën a jaag te xel mënu koo nangu ñu jàpp lool. ñu ne loolu nag yéen jëkkër yi nga xam ne yéen a ngi dem Cham wala ngeen di dem feneen. fu mu mën a doon di dem di fa yàgg su ngeen amee nangam ci ay weer na ngeen ñibbisi ak nu ñibbisi bi mën a demee nag. donte da ngay ñëw indi woo dara it nga ñëw ñëw bu metti ndax euh, yaa taalibal ilmi wala yaa taalibal amr. law niltal faqda ala. Hmm. Euh, faqdal ulum bu dee elmu la awaa na raj ilil fitani su dee da ngaa dem uti xam-xam nga ñëw indiwoo fitna ngay nekkee su dee da ngaa uti am am nga dem indiwoo boo ñëwee it fitna yooyu ngay nekkee Seydina Omar ne ala kulli xaalin dellu si sa njaboot gi dellu si ci sa njaboot ñu bañ tamit di jël nit di ko forcer di ko may koo xamante ni bëgg ko d'accord di ko yoreel àq muy ci ku góor ki ak ci ku jigéen ki forcer nit di ko dugal ci loolu jaaduwul ki ko forcé ba dugal ko ci yoreel na ko àq kañ ca dugal te bëggul yoreel na kañ ko booleel àq te àq yooyu day tardel nit day tëj nit day delloo nit ginnaaw yàlla nañu ci yàlla musal amiin yaa rabbi jërëjëf jërëjëf Oustaz Habib xam naa waa régie bu ñu euh, affiché numéro bi rek mbokk yi ku bëgg a participer mhm. mën nga bokk ci waxtaan wi insha allah mu ngoog numéro yaa nga woogu ci ngeen ku bëgg a participer mën nga cee euh, mën nga cee jaar mhm. euh, mère Thiama damay mhm. ñëw ak ci beneen geneen anam bu la neexee tamit lii nga commentaire ci mais du génn li ma lay laaj seexu naa tamit am na fu ma bëgg a ñëwee ak moom moom damay génn moom réew mi mais yow damay des ak yow ci biir réew mi ba tey rek euh, tukki bàyyi bàyyi soxna ginnaaw mm-hmm. am na koo xam ne jëkkër la bàyyi ginnaaw mm-hmm. suñ mbokk yi ñëw fii di daan doole di mbindaanu euh, sama mbokk séeréer yi ñu mm-hmm. bari dañ ñaan ma xanaa séeréer nga ma ne ah xaw ma maam ju ko doon bokk nañ sant nag sama mbokk séeréer yi kon laay wax ndax saar gi euh, ñu bari dañuy jóge dëkk ba ñëw fii di liggéey si bàyyi seen borom kër dëkk ba léeg-léeg ñu bëgg fee toog ñoom itamit ba tabaski ba tabaski ñu soog di dem te léeg li leen di téye patron bu mel ne maire Thiam la ñuy am mu féex ba day jël lépp teg ko ko du ko moy benn xam na ne am na borom kër au lieu que xelam dem ci léeg mu waajal ko. mu dem ci borom këram mu may ko semaine bu mu fay def wala juróomi fan yu mu fay def dellusiwaat waaye du ko mooy benn fan ba léeg ñu bari seen sëy foofu la jaaree tas. di ay liggéeykat ay jànqan yu ni mel. Mhm. bàyyi borom kër àll ñëw Dakar te dellu. loolu tamit euh, loo ciy wax. Oustaz Makhtar balaa may tontu foofu loolu sama yëf la balaa may tontu foofu damay dugg ci Oustaz naka Sall. Habib Sall Oustaz Habib Sall di ko ziar. di kàddu yu rafet yi. dañu wax sànq boo mayee nit soxna te bugg ko waa ji mu ne sama yaay ko takkoon na toog foofu. Mhm. maa ngay dem ka ma nekkal fële moom laa gën a respecté que kii ndax sama yaay moo ko takk. Mhm. te xam nga waxoon nañ fi ñu ne sa yaay moo lay utal jabar xam nga moo tax man leen takk nañ bàyyi kii mu bëgg takk ki mu bëgg. mu moom xam nga su ko bëggoon takk ko takk si dëkk ba bala chaque samedi dina aw yoonu raami escale jàll kulaar am de waaye bëggu ko fa la koy bàyyi ma ñëw ci li ma wax léegi gis nga ñooñu sama mbokk yooyu ngay wax ne ñooñu fi daan seen doole ñoom boo leen mayoon sax bis pour ñu dem dëkk ba seet seen njëkk duñ dem. allo ah, sax. seen bopp mooy da nga mooy da leen a fayul xanaa weer wi ah, ah, deewagul parce que ñoom elles sont très braves. gis nga boo leen gisee bi ñuy tabaski ji ba liggéey dañuy liggéey ba liggéey chambre à coucher yóbbaale. am na sama benn maam bu naan wax naan jigéenu ndakaaru ak góoru kaw bu dee safar lan jëm. ëpp naa def waaw. jigéenu ndakaaru ak mu wax ko fu mu jigéenu ndakaaru lépp a ci kër gi. toggoo yàq ko fóotoo paase woo soo moytu sax bu ñëwee mu ne joxal seexu na añ bi am na fi. am de mm-hmm. yaa ngay kiccar kiccar rek lu xew nga dem fu ñu tëgg koy ubbi yaa koy tëj. góoru kaw na ma yàlla baal ñu nga ca taatu garab ba puusal yàppal indi am gañ na perte jigéen ñi ne fi daan seen doole hmm. liggéey bu ñuy dem macha allah lu ne la ñu yóbbu hmm. gis nga ñoom dama leen daan wax sax naan leen yéen lu ngay doy borom kër ndax yéen yor seen bopp de yaay amee yaay faj sa bopp boo amee doom daanaka ne yaa ngénte sa bopp booy liggéey loo yor sa bopp nga koy def kon ka góor ga nga am mataar saa la la lay jëriñ néeg ba rek te kenn doyewul loolu du ab sëy doomu dig moo tax ñoom ñuy liggéey fii am na ñu fi ne sax bëgguñu dem dëkk ba parce que ñu ngi liggéey am seen teraanga lu ñu am bokk ak seen waajur waaye boo amee mataar saa ca dëkk ba da lay wax ne yónnee ma dara da ngay gis ñoom seen bopp ñuy dem ci ore bi du yónnee ñoom mataar saa yan inconvénient léeg-léeg moo ci juddoo ci jigéen ñu mel noonu di liggéey fii bàyyi seeni borom kër dëkk ba yenn saa dañ ci am doom sax dañu am seen ginnaaw dañu am doom ndax ah, doomu borom kër gi. ci est-ce ah, ki ko yor ci biir kër gi tamit du àq jum ko yoreel bañ ko bàyyi libéré ko borom këram di woote léeg-léeg tamit problème boobu yéen yéen ñi jël jànq kooku moom moom moom Sénégal géppoo ñu lu même boo leen bàyyi bu ñu dem dëkk ba ñoom xam nga lu ñu lay tàggu damay dem ceet damay dem dëj duñ la wax tàggu mu damay set sama borom kër de. mais surtout la mën na la wax damay set sama borom kër. bu la wax damay set sama borom kër dafa am dëj pour nga bayiko wala ngénte ndax bu la waxee damay set sama borom kër nga ne ko man jëluma ko xam ne. non non day non non non mata ñu ay ay jurit lañu ku ne xam fo nek atum yalla war nga dem set même bu amul borom kër sa war nga set sa wajur mais man mus duñ la tag nga wax de atum yalla nga wax de. at nga fay xam nga at nga fay dëkk at nga fa nek de. liggéey Dakar at te demo dëkk ba. am nañu seen déjà duñ dem dëkk ba deux ans duñ dem dëkk ba. mais est-ce que du patron yu mel ne maire Thiam lañ dayal. yow patron boo xam ne bu dimanche samedi nga wàcc ñibbi sa kër bu samedi ngay wàcc di dem su fa nga dëkk lundi matin ngay ñëwaat nekkaat ba samedi wala par 15 jours ñoom ñu dëkk ba de tele laay waxee da ngay nekk ci kër dëkk fa bu samedi ci par 15 jours ngay wàcc am na ñoo xam ne 15 jours la ñuy wàcc soo wàccee 15 jours yaa nga sa koñ demoo dëkk ba parce que da ngay denc sa xaalis ndax xaalis boobu ñu lay fay dafa am loo xam dafa la ci war. sa yaay nga dëkk ba yenn saa nga am jëkkër am nga fa ñaar doom ñu ngi dëkk ba te ñu ngay jàng nga leen di fayal ñuy jàng xaalis boobu da ngay bëgg di liggéey doo bëgg paas sax bu dem dëkk ba sa yaay dala naa bul ñëw yónnee ma taam ma def li ma def li li li mënta ñàkk rek mooy dëj d'accord li mënta ñàkk nga dem am na lu mënta ñàkk mooy ko woote pour ñu dugal ko ñu jël ko dellu si salaamaaleykum di waxit ku woote témoignage yi ba tey mën nañ cee dellu si ci birinoo moom lañ ubbee woon ci la tamit salaamaaleykum aleykum bu baax bisimilah yëkkatil kàddu gi. Euh, dama bugg a participer rek. waaw yëkkatil kàddu gi ñu ngi lay dégg. ñu ngi leen di rafetlu émission bi. waa kay jërëjëf. Euh, waaw xam nga li leen di wax ci góoru Ndakaaru yi. Hmm. Euh, jigéenu Ndakaar. Hmm. xam nga wàññil wàññil télé bi wàññil télé bi. waaw. waaw. ci ci li ñu di wuti. yow boo amee sa soxna. Hmm. lu noo mën noo mën di mel di tam teye ko ci sa biir kër. ci ñu wut bu demee wuti de de de de de de lab si si kon dañ koy feye. Hmm. dagg na. d' accord bu keneen ñëwee ñu dugal ko nu mu manti mel téye ko ñenn ñi bëgg lu yomba tax nag euh, ak ragal dépense euh, <laughs> dañu am kenn ku ñu xel mi dafa dafa dafa xaw a desee mat euh, te mu wax waxu nit dañ ne papa dafa génn àdduna bi mu ñëwee tiim ko xool ko ne hee deewut day daw dépense <laughs> waaye tamit am na góor ñoo xam ne mel na ne yenn yi daw dépense lay doon mais mère Thiam ma daanal ak yow ñëw ci seexu naa ci ci menn mbir est-ce que ñi jël jànq yooyu mënuñ leen a dimbale ci benn côté da nga gis koo xam ne këram yaatu na lépp nga fa jànq beegee néegam ak salle de sax mais mënu koo may boroom këram ñëw fi def fi benn quatre jours delluwaat dëkk ba wala mu dellu ci beneen dëkk ba muy liggéeyee loolu tamit problème la Ousama Mataan nag bàyyil sa xel mi ngay petit temps waaye sax xel mi ngay petit cas. de dama la dama la eh, trouver solution bu dee bu dee yow jàppale jàppale rek moo la tax a jóg. ak ndaw si xam nga ne mënoo koo bàyyi muy dem dëkk ba ndax moo yor lépp ci biir kër gi. mënoo koo may est-ce que jëkkëram ñëw ci kër gi am na fi néeg ak lépp dara manqué wul ci kër gi. man la ba. <laughs> Ah, yaa ngi daw question bi de. <laughs> <laughs> yaa ngi may fat mais lan moo tere jëkkëram. bu ñëwee Dakar ut fu mu nekk ak jabaram pour week-end non non kër gi dama ne yaatu na am na ko xam ne kër gi amul obligation ci moom moom daf koy fay man la obli xoolal dama ne am na loo xam ne bonus la man la ki nga xam ne nii mënu dem dëkk ba waa léegi man mii hmm. na ma jox Jupiter na ma jox ci bâtiment yii ma dëkk ceeg sama borom ko ndaxte am na ko ñëw ñu jël ko waaw salaamaaleykum mu ngi noonu aleykum salaam Oustaz Makhtar waaw na ngi bu baax ziar jaama ak seexu naa yàlla na ko yàlla nangu ginnaaw Louis rek ñoom ñëpp. Louis ñëpp ak lay ziar. waaw thème bi thème bi euh, thème bi dafa am solo trop oustaz ndax dafa ñëw si mm-hmm. te dafa nekk loo xam bu ne la ko laalee. kenn oustaz. oustaz de. <laughs> sànq xam nga la. la la laal la ay sànq lay lay <laughs> xam boobu uh-huh. mm-hmm. dañ ko war a taxawaat. Mm-hmm. mooy ñàkk jom gi nga xam ne sama classe gi ñàkk nañ ko jom. ñoom hmm. ñoo war a takk soxna. en tout cas yi ñu waxoon yëpp nañ si nattee góor pour mu takk soxna yow nga teg ko feneen ne man du ma koo xam ne kaa sosé. Hmm. nga loolu loolu loolu loolu nekk lu de. ndax nit wolof koy wax ne garab bu la sutul du la may ker te loolu waxu wolof la. Hmm. mais euh, suñu yaay mère Thiam mii mën na seede li may wax. mu ni mu doon takkee sëy ak ni ñu takkee sëy dafa wuute. ndax bu njëkkoon góor dafay am mu toll ñu ne nañ ko wutal nañ ko sampal waaye tey nit bu takkee soxna sax lan lan la ñuy wax mooy jëkkër ji lan lay liggéey. lan lay liggéey c'est-à-dire nit ñi léegi dem nañu ba maanaam sëy léegi lépp commerce la. lépp commerce la te yàlla nag comme ratal ne sa natta bindigo min xaytu laa yaalaman lu sëq ma xuuf ko comme nañ jël lépp jël jël sëy def ko benn benn fond de commerce bi fu wutee alal. mu xar leen mu mu mu kaar mu kaar leen foofu. léegi ñàkk jom gi nag ñàkk jom seexu naa dafa mais dañu continue mais jëm ci biir nga ñàkk jom at moom mooy tax nit dem ba def bàkkaar ak tuyaaba daf koy yemale ak dara ndax nit bu demoon ba xam danger bi nekk ci def bàkkaar xam naa kii di jeex mais. Mhm. dina leen duggaat. danger nekk ci def bàkkaar dana xam ne takk soxna dara tollul ni moom. même boo mhm. yorul dara. Mhm. waaw xam naa ziar la woon rek ziar mbokk. d' accord jërëjëf boobu nu ma dugg. dëgg la maa ngi envoyé lii kii euh, may euh, message sax. dëgg la di ñëpp waa. jërëjëf jërëjëf Oustaz jërëjëf. waa Kaolack ñu ñu ngi seetaan ndénkaane ah. nuyul ma leen nuyul ma leen. Oustaz Oustaz Biram moom xam naa moom du gëj Kaolack bokk nag ñi dem tabaski ba tabaski. <laughs> yow xam naa moom du bokkoo ci góor ñi dem tabaski ba tabaski. <laughs> Oustaz Biram ñu jaajëfal ko xaritu laal la tout le temps mu laajte ko. Oustaz Mata du obligatoire pour mu jëkkëram di ñëw si kër gi. moom obligatoire ba tey de waaw dama ne est-ce que trouver solution ak jàppale ko man dama gis ku def lu mel noonu te bari duñ ko nangu waa léegi wuyu ma pourquoi ma koy jël boroom këram di ñëw ci kër gi te mu ngi néegam bu kon léegi mooy lu yomb lu tax borom këram mënu ut foo xamante ba fay nekk ak jabaram ñoom ñoo na ko loolu mooy bëgg lu yomb xam nga loolu lañ ko bëgg lu yomb am na keneen ku ñëw salaamaaleykum waaw ku baax bismillah alhamdulilah kaw baax daal waaw mu lay man la sa mbokk Saalum Saalum. ah waaw mbokk Saalum Saalum na ngeen def. <laughs> mais jaama tey dafa romb Ndara dem ba dem ba. Ah, ah, kulaar fële. Kulaar. Kulaar dem naa ba Kulaar tey. Kulaar de so Kulaar de Soli Ndara mais est-ce que. <laughs> dem ba Kulaar. baax a baax. yàlla na ko yàlla nangu. yéen a ngi ziar bu baax waxtaan am na solo lool ki ñu indi nii tey tamit waxtaan na si. Euh, ak euh, euh, jooyante tey waxtaanam neex ma trop. Oustaz Habib macha allah Habib Sall xam leer na ñun xam miinuñu ko nii na wax dëgg waaye li muy wax neex na déglu. Mhm. waaw loon moom dañuy si soññ ñun ay xale la ñuy bàyyi suñu jabari Saalum waaye ñun du biñ jullee léegi dem nañ fa. ah kon xam nga fa gëj kañ nga fa gëj kañ nga fa gëj. biñ jullee léegi dem nañ waaye ñoo xam na li nga wax noonu dëgg la am na ñoo xam dañuy toog lu yàgg duñ ko def. Mhm. waaw ñu ngi leen ah, ah, nga gën ñu soññ rek. naaw eh, yaa est ce que est ce que du est ce que du ngànt comme ni ko Oustaz Habib waxee léeg-léeg mooy tee duñu dem dëkk ba. wala dund ah. bakkan. ma ne est ce que du ñenn ñi dañoo am ngant moo tee duñ fa dem wala ñenn ñi dañoo topp seen bànneexu bakkan. non euh, dégguma la de. ma ma ne ñenn ñi li tax ñuy gëj seen soxna àll ba dëkk ba. allo ma ne lu tax lu tax ñuy gëj seen soxna dëkk ba. man dégguma la de Bamara. waa euh, kon xam naa retour bi la. dégguma la de aw ma retour de. d'accord mais yaa ngi may dégg man. waa waaw waaw. yaa ngi may dégg. waaw maa ngi lay dégg waaw. waaw nee na lu tax tey ñi nga xamante ne ñu ngi gëj Ndramé Escale wala di gëj seen soxna yi lan moo ko waral lan lan nga xalaat ni moom moo ko war a waral. ñuy gëj seen nga wax. waaw. waaw xam nga yenn saa yi sama classe bi seen poste euh, matu ko ragal dépasse yooyu yëpp comme li nga wax sànq rek yenn saa yi ñàkk jom lañuy dawal. bëgg a soxna si dëkk ba après ñëw fi nekk si liggéey xam nga fii doxul après mooy loolu waaye daal am na si ñoo xam ne wax dëgg yàlla jar nañu ñaanal daal parce que bëgg nañoo yor ku bëgg a yor nag moom da nga koy ñaanal rek am na ñoo xam ne moom bëgg nañoo yor wax dëgg yàlla d' accord waaw euh, bàyyi ma daal des rek yow moom ñu ngi seen ginnaaw dañu soññ daal dégg nga incha allah jërëjëf ñu ngi lay siyaar bu baax dégguma seen retour nag moo tax waaw d' accord waaw d' accord ñu ngi lay dégg bu baax jërëjëf yow naa sa inoo njanaaw yi kañ lay kañ lay amaat bi dimanche incha allah 17 dimanche. dem dëkk ba te bañ nganaaw yi. ban dimanche 17h. <laughs> dimanche 17h waaw incha allah. da allah d'accord jërëjëf jërëjëf ñu sant ko gërëm ko waa nga daaneel seexu naa ñëw. ma ne loolu du obligatoire. Mhm. pour ja jëkkëram ni ci kër di dafa am ñeenti fan wala mi fan parce que mu am na liggéeyam kon jëkkëram bu dee ñëw Dakar war na am foo xam war na fàtte sa jabaram mu nekk moom. mais fi mu tase ak moom bu demee bu dee néeg lay doon da koy fay. yow jànq bi trente cinq mille nga koy fay wala quarante mille gën jaa bari cinquante mille franc maa koy añal maa koy reer maa koy dëkk jox ko nekk borom këram ma nga ca uh, àll ba ah? sàmm la maa koy añal maa koy reer maa koy dëkk waaw léegi jox nga ko néeg néeg boobu laa ne luy problème néeg bi nga xam ne moom nga ko jox mu fay dëkk waa néeg boobu nag borom këram ñëw Dakar dafa moom cinq jours wala quatre jours du néeg boo xam ne jëkk dafaa war a ñëw ngeen di fa nekk ci kër gi kër day am lu waa kat nag dëgg la yàlla bëgg du ma koy bind nu ma ko pour jëkkëram di ñëw fii su amee repos na dem fekk jëkkëram. wala ñu wala ñu wala ñu jël dem. su amee bis bi mu wàccee nga xam ne moom boppam. na dem seeti jëkkëram wala jëkkëram bu ñëwee Dakar mu xam ne bis bi lay wàcc ñu nekk ca ñoom ñaar comme dañ ko caa bëgg a nekkal waaye daal kër gi ma indi ko fi mu fi liggéey ma yor ko jëkkëram nag dafa saar buy ñëw na am feneen fu mu jaa waaye du ñu am na ñoo xam ne nanguwuñ ko ñu ko nangu sax bëriwul de mais mais léegi man euh, euh, dama jaaxle foofu mère Thiam waaw wax léegi yow soo amee sa doom ju jigéen euh, am ku ko takk waaw mënagu koo yóbbu kon legi koku du ñew ci sa biir kër biir kër gi ak sa doom ju jigéen ku takk doo fanan ku tak do fa fanan parce que lool utal ko jom la xam nga man dama contre tak sa doom ba pare ñu nak man xeyna man sa yow ma noonu motax amna jëkkeer yo xani musu ñu xam seen kër goro nu mu mel bañ leen takk ci guddi ga ngeen dem lool mooy yaangi dugg ci benen problème xala ñu jël ci delu ci war waat alaykum allo ah, salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah Pape Matar. waaw kay. Kana. na ngeen def. alhamdulilah Abdoulaye Diouf lañ koy wax Saalum Saalum. Abdoulaye iya, Diouf Saalum iya. Saalum na ngeen iya, def waaw ñu sant yàlla bu baax. alhamdulilah naka njaboot gi. ñu sant alhamdulilah ñu kontaan ci émission bi trop trop trop trop. jërëjëf. waaw mais bëgg naa seexu naa. Mhm. démb ba ñu tëj mu wax ngeen bàyyi xel bu baax a baax a baax. mooy lan. mooy comme bi. lu ma ko jàppe daal mooy spécial yi jamono la daal yenn saa yi day am diine yenn saa yi day am jamono comme ñun ndaw ñu tamit comme saara ñu dañ leen fi di soxla mhm. yenn saa yi tamit euh, soxla sa saar yi tamit mhm. maanaam kay menacé daal dina rafet trop ñii mhm. lii dañu gënal ñooy tamit lee dana leen gënal man mi di waxoon yow musulman laa hmm? mais yenn saa yi tamit jamono soxal ku mel ni ñoom meer caamu ñoom ñëpp dañu neexal émission ba baax a baax ak Seexuna yi ñoom ñëpp dañuy neexal émission bu baax a baax a baax. moo tax moo tax ñu. ne même ñu ngi lay bàyyi bu baax ak Seynabou Fall ak Oustaz euh, kii Mohamed Diop. Mohamed Diop Mbaaw. Mm-hmm. yéen bu baax a baax a baax. Mm-hmm. suñu saa comme Seexuna dem ba ñu tëjee ni mu ko expliqué noonu ndax. d' accord d' accord euh, nga euh, nga daaneel Seexuna ñëw. waaw man ni xam nga xale janq bi ne ci kër gi loolu du priorité. Mm-hmm. xam naa fukk yoo gis kenn ko ciy def. d'accord Cheikhouna. Euh, man euh, dama bëgg revenir ci oustaz. Mhm. gis nga tey am na ko bëri ñu bëri ñoo xamante ni tey ñu ngi nekk bitim réew. conditions yi tax ñëwuñu manque de communication moo tax ñi nekk fii di jafe-jafe mais li koy waral mooy que suñu société ñun moo feebar. parce que tey am na koo xam ne dafa nekk bitim réew liggéeyul am na koo xamante ni pour mu fanaan sax problème la am na koo xam ne pour mu lekk sax problème la. at yi mu fa nekk moom du coobare boppam condition yi mu nekkee moo ko permettre mu ñëw su ñëwee tey naka la fiy nekkee est que ñëwam du gën a graaw ka bu fa nekkee parce que bu fekk si jabar gi yorul dara sooy bi si tas lay jëm moom mujj moom na bu ko jabar ji mënut a muñ muñal le fait mu nekk foofu noonu di lijjanti est que bu ñëwee société bi di ko xool yaay di ko xool bëtu dama tegg sama natt nga dem indiwoo fi dara mm-hmm. jabar naan ko da dem def fa loolu benn la beneen bi mooy que tey moo tax la kan tey suñu société moo am nu mu bindoo noo xamante ni ñun du ki tukki tukki ci société bi la bokk te moo la gën a xam société bi bu fàtte loolu de fii la jóge te xam nañu ñun bu baax mu ngi dem te xam na ñu fi bàyyi xam na ni dem na mais su demee su indiwul dara bu ñëwee bët bii lañ koy xoole te comportement bi la ñu amoon parce que am na mag bu mu bàyyi ci kër gi yorul dara kenn toxaalewu ko xam nga tey mais mais kooku problème am boobu société bi nangu na ko mais ndaw si moom itam waaw ne léegi moom dama ne lan mooy solution bi bu toogee foofu noonu ci la gën a mën a ndaw si yaakaar ci la ko gën a mën a téye mhm. mu ñëw parce que soo moytu bu ñëwee dina ko muñal benn fan ñaar ñetti fan mu lese deux bu kiyee mu daw mu tàppaas ko daw parce que gis nañ ko ba taay mhm. boobu benn la beneen mooy ko tey kii tukki naka lañ koy yebee kii tukki foofu parents nga dem ñu lay yeb naka lañ lay yebé li lay yebé moy que tayow yow de yaa ngi dem mais kër gi ci yow la yaakar xamal li nga bàyyi si ginnaaw xamal li nga bàyyi si ginnaaw naan spatuwa est ce que tay ki yeb ñu ngi koy yeb ne ko que ni soo demee bu nexé bo défé parce que c'est des choses c'est très important gis nga tay ñu bari ñu ngi tukki ñëw parce que tay tukki dafa nek affaire bu graaw mhm. tay da ngay tukki dafa dal suñu benn xarit rek bi yagul yàggul fi tukki di dem mu ngi fekk affaire bu yi affaire ki parti parti ak jaaba nga ñëw fekk ni ñu am ay doom am 12 ans 13 ans hein ay ñoom Moussa am doom am nga jaaxle yow nga ñëw. amoon fekk gars ñëw di woo gars yi la. <laughs> gars yi naan mais ñun tayfal la ñun bañ gën a gën nga baal mat na 6 ans. <laughs> parce que loolu nga fi bàyyi woon. mais su yaa ngi doon ñëw régulièrement yow di nga comprendre lu bëri loolu benn facteur la mu ne ko tey yeb booy dem naka lañ lay yebee soo demee bul yàgg àll soo demee boo loo mënti am boo defee at ñëwal xool sa jabar ainsi de suite yooyu a jouer seen rôle xel boobaa yooyu noonu ñëpp duñ ko jouer beneen euh, benn question balaa ma ñëw ci Oustaz Habib ah. non may euh, tey euh, ak kii woote sànq mm-hmm. kaaw ñi nekk fii Sénégal te duñu fekk seen jabar am na ñoo xamante ni da nga fay nekk mooy li ma la wax rek boo demee foofu noonu sa morom ñëw nga nekk xale sa grand frère dem Dakar ñëw yorul daal ñëw dama seet sama jabar ñu xas ko mm-hmm. soo ñëwee boo yorul dara doo dem loolu benn facteur la beneen facteur bi gars yi bëri ñu fii ci Ndakaaru yor ko mën ko chaque samedi la ñuy baale ji ak dem dugg si yenn soirée di ko fa mayee mën nañ dem seen kër yi loolu aussi foog gars yi bàyyi ci xel leneen gis koo xam ne mu ngi bàyyi fee benn jabar fële na la fii topp benn xale jiir di ko doxaan fii nii su guddee mënu la dem ca kële ñun la am na ci cas yoo xam te ne ñun góor ñi ñun ñoo matul xam nga tey je te donne un exemple benn booy bu nekk Dakar di ambulant wala di na le wala di liggéey fi bàyyi fa jabar chaque samedi mu yàq 10 wala 15 mille francs parce que mu ngi may parce que mooy li may wax tey góoru Sénégal la majeure partie des hommes sénégalais man damay wax ni nit ki soo buggul sa bopp soo fonkul sa bopp kenn du fonk gis nga tey day gis góor di takkale di taaba taaba bu feet jotee mu jënd pour gelam cheveux naturel def ci moom 50 mille francs te mënu ko def ci boppam bàyyi jabaram fële na la bu samedi jotee mu dem doxaan chaque mooy entretenir gel bi fii te mu ngi bàyyi jabaram yooyu nag c'est des choses yoo xamante ni dafa nekk te tey yooyu noonu yooyu moom laa ne une personne dafa doonee que c'est la éducation la mm-hmm. yar la am na góor boo xamante ni jomm na ko est-ce que wax na beneen cas aussi oustaz euh, Birama léegi bi mu duggee mu nekk ni euh, góor bi nga xam ne day wax ne du ma takk cas social mm-hmm. gis nga oustaz yàllaa gën a xam nit ci boppam mm-hmm. man damay wax ne léeg-léeg ah damay su may def sama su may def ay gëstu di Euh, alxuraan ngay firi def traduction da xool ne léeg-léeg approche bi nga xam te nitu diine sax moom la ñu war am parce que nit dina mën a jàng mais yàlla suñu borom du ko may euh, pour mu ràññee pour que mu ibbeeku nit dina jàng alxuraan moo tax yàlla mu ne borom xel yi maa leen jox autorité ci kaw seen jabar yi ngir jagle bi mu leen mhm. yamut foofu dafa ne nag ak lan ak yore bi ñu leen di yore parce que góor yor sa jabar ñu jël dafay tax sa jabar wekk la sa jabar Assalamualaikum. Halo. Halo assalamualaikum. Waalaikumsalam nekk salaamaaleykum allo allo Dev. Sampai waaleykum bu merci jërëjëf dama koy seetaan chaque jour jërëjëf ndax xam sama di jarwaa bu fi nekk quatre ans la am mais su la gisul rek da lay Isaaxa ñu ngi koy ziar bu baax. Isaaxa wuy Oustaz. Isaaxa allo. allo Isaaxa na nga def. naa def. maa ngi fi rek tey ñëw naa. <laughs> démb Fatima moo ñëwoon tey ñëw naa. <laughs> <laughs> waa kay jërëjëf. waa merci. maa ngi koy nuyu di nuyu benn benn pharmacien keroog dama. dëgg la ma sama doom yi daal. télé bi daal kenn amul kenn du am jàmm boo yow daal nee nañu in foog yow rek la ñuy jàpp dégg nga mi ngi naan oustaz mi ngi wax mi wax ci suñu mi ngi wax d' accord seexu naa question ma la bëggoon a jox dama koy jox oustaz Habib mhm. euh, mooy dafa am ñoo xam ne tey li tax euh, seen soxna mën nañ ko lijjanti la am nañuy yi mhm. mais dañoo gis fukki kaa bitim réew mhm. ku fa indi soxnaam ñàkk ko ñu ragal ne bu ñu indee seen soxna dañ koy ñàkk ndax bitim réew ni mu tëddee tay ndaw si bu démé yaay ju mel cham meer mer meer caama la fi bayyi mu bëgg a ndaw si da nga demoon pour mu tok sa kër yor sa njabot lu ngeen am ngeen bokku ko waaye yaay ji du ko ci bayyi mag yi duñ ko ci bayyi tante yi duñ ko ci bayyi ku nekk naan ko kar di di soxla te mënu la ñaan nan lay mujj def ne damay genn liggéey waji ne ko indiwuma la fi won pour nga liggéey mu ne damay sohla liggéey ndax samay soxla fajal ba xëccoo boobu léeg-léeg mooy waral jigéen ñu bari tas bu leen seen borom kër yóbboo dem sëywaat beneen sëy wala ñu nekk seen bopp ba tax na ñenn ñi dund lu mel noonu gis ko bu ñu amee kayit ragal a indi seen soxna euh, situation boobu noonu la euh, yaa ngi koy dund ci société bi di ko dégg nan nga nan nga koy jàngatee ci diine li liñ liñ ciy ñëw comme sunu gis-gis ak li nga xamante ni moom la ci diine wax mm-hmm. day dellu ci lii Cheikh naa waxoon cest à que loolu lépp day delluwaat ci base bi ci commencement parce que wàññi bu nekk ci benn lay commencé am na koo xamante ni boo ko yóbbu woon teg ko fa yow nga jëlee ko fii nii yóbbu ko bitim réew teg ko fa su ko mille personnes doon woo par par jour du ko diis soxla du tax mukk mu indi benn suul adab benn ñàkk teggin ci digganteem ak ki ko yàlla boole ki ko yàlla boole bu ko mille personnes doon woo par jour laa wax di ko di soxla te amu ko loolu mënul dindi lu toll ni atome ci respect bi mu jox boroom këram mais kooku ban genre jigéen lay doon oustaz gis nga dañu delloowul affaire bi ca delluwaay ba ca masdar ba ca aslu ba euh, mooy man Habib bi may dem di uti soxna est-ce que fi ma war a dem laa dem kan laa war a takk man kan wuy jur yi nañu delloowaat seen xel ci seen ginnaaw bàyyiwaat xel seen njaboot te assumer seeni responsabilité ci seen njaboot éducation de base muy lépp fi ñu nekk nii tey ci étage bi fondation bi moo dëgër moo tax ñu mën a agsi fii ñu agsi su amul woon du mën am Seydina Aliyin karamallahu wajhahu damay jël exemple lu bari ci moom ndax yonent bi wax na ni man may ana madinatul ilmi wa aliyun babuha aliyun neena na yonent bi tijjil na ma junni buntu xam-xam buntu bu nek man aliyun def naa effort ba def ko junni buntu manam buntu bu ne def naa ko junni buntu xam-xam bu xajul ci aduna motax hikma bi ko yàlla mayoon def doy war dañu wax dafa am ben way bu ko andil domam bu am 7 ans ne ko dem beug nga yaral mako mun ko ki weesu na fu koy yaree mu demaat am doom mu am 4 ans mu indi mu ne weesu na mu am doom ñu teg ko ci berceau bi mu indi mu ne weesu na sa doom yaa ngi koy yaree fi nga koy utilisé yaay foofu ngay commencé di yar sa njaboot fi nga koy tànn liggéey yaay problème bi yëpp ci tànnin bi la ak ci takkin bi ci ban ndaw nga bëgg nga dugg yaay ji nu mel ci bëgg àdduna ba tax war ko teg pression wu yaakaar lañ am ci yow waroo faa dem nekk kuy toog ci kër yi mm, mm, maanaam bu góor tànnoon soxna si du am problème boobu bu demee problème boobu te bi ci des mooy oustaz dañuy sëy ak ñetti nit ba ñeenti nit da ngay sëy ak sa soxna di sëy ak yaayam di sëy ak bàjjanam hmm? Hmm? waaw ni ngay sëy ak sa soxna di sëy ak yaayam di sëy ak bàjjanam mooy yow li la war ci sa sœur yi duñ ca bokk rek sœur yi dañ ciy bokk <laughs> affaire bi day mujj yaa dañ koy élargir ba famille bi ah dañuy mujj yow ngay sëy ak ñëpp famille bi yëpp yow sa soxna ni muy amee accès ci yow di la sañ a imposer noonu la yaayam di amee am na góor ñoo xam ne dañuy bañ mm-hmm. noonu la yaayam sañee taxaw di la imposer bàjjanam noonu boo nekkee góor bu nooy yaa ko tee liggéey te moom lañ yaakaar kon suñuy soxla yaa ñu koy fajal alors man gis li nga wax nii gis naa ci cas yu bari góor ñu bari nangootu móodu yu bari nangootu ñu yóbbu seen soxna pour ñu fekk ji leen mais mais mais oustaz que tey mm. yóbbu xam nga option boobu noonu ku góor ki lay défendre man kii day nekk sama soxna mm. man ma nekk borom kër gi kër gi man maa yore responsabilité kër gi éducation kër gi man maa ko yor mm. est-ce que su ma yóbboo sama jabar man ak moom ñu dem léegi xale yi anañ les gens ils ne pensent qu'aux femmes ana njaboot gi leen yàlla dénk est-ce que tey man ko yóbbee jàppee yóbbu ko est-ce que éducation ma bëgg ci ñoom dañ ko am loolu responsabilité ku góor ki la xam nga ñun dama ne ñun ni ñu koy traité xam nga tey ñu wax affaire femme bi jigéen mais jigéen ñi njaboot gi dafa sos si ñoom dafa bokk ci ñoom mm-hmm. couple bi du mën ak jabar ji kese tey man dama fi bàyyi sama jabar parce que lan jabar ji dafa am lu ma wutul moom may wutul moom moo may wuutu man ci njaboot gi moom moo nekk ci kër gi di xool xale yi jàngu xale yi xale yi ndax kii ndax sàcc ndax nii nangam ak sàngam li ma bëgg ooji sama njaboot sama jabar laa koy def parce que jabar ji dafa am relais bu muy joué mm-hmm. du ni yóbbu ko est que yóbbu ko moom mooy gën certes dina am gàllankoor mais tey face à problème da ngay teg nga def nga def teg ko sur la balance ndax su ma ko yóbboo certes waaw jabar ji dina soxla euh, am dina am solitude est désespoir de yooyu noonu yëpp waaw mais est-ce su ma ko yóbbee est-ce que moom mooy gën parce que problème bu tegu da xool nag li ci gën nga régler ko bu ma ko yóbboo ndax njaboot gi dina baax wala njaboot gi day sànku su fekkente ni bàyyi ko fi jiwatu njaboot bi ak wéetam ak nangam ak sàngam moo gën moo tane boo ndax njaboot gi dina kii moom dina bu amee ngëm yàllam ak gorom ak dignité loolu mën na ko muñ mën na ko sàmm mais tey su ma ko yóbboo njaboot gi day sànku. ñoom c'est des choses très importantes. très en compte aussi. très bien ñu jël jël kii balaa nga ñëw foofu noonu salaamaaleykum. Euh, rëcc na. balaa mhm. doon ñëw. lu am solo la wax. Mhm. cest à yóbbu ko du farata. Mhm. yóbbu sa soxna du farata d'une part. c'est-à-dire que tey non at ah, du farata nga yóbbu sa yóbbu ko du farata. xamul tax du farat nu ñu déggee askinuhunna min xaysu sakantum ci biir ma kaa boobu wa aysu askinuhunna min xaysu sakantum min wujdikum wala tubaruhunna li tadayiqu alayhinna loolu alquran dafa wax ne bu fekkee man xabib dama am sama soxna ci sharia ma fase ko su ma ko fasee alquran nee na bu ma ko bàyyi mu ñibbi seen kër naa ko bàyyi mu iddawoo sama biir kër xamul lu jublu ci bàyyi ko mu iddoo fa boobu hmm. dina xëy bés def lu tojaat sama xol hmm. ci kër gi al sa soxna boo ko fase alxuraan ne askinu hunna mu ne ci kër gi waaw bàyyi ko ci kër gi da nga koy hmm. bàyyi ci kër gi mu nekk fa loolu alxuraan wax xamul lu ci jublu fase dafa nekk lu dangereux lu doy waar mu ci jublu rek bës rek nga xëy gis ko rek mu def du tojaat sa xol. nga defaat ci moom nit na fas jamono te du doyal. waaw nga taab lépp lu alquran wax. Hmm? buñ ci dellu woon delluwaay bi marja bi alquran la. Habib moom ah Habib. waaw da nga naan mu xëy rek fël fëlaay romb rek. mu mu xëy rek fël fëlaale rek. mu xëy rek fël fëlaale sànneeku rek laal la am ah, ngo waaw bi mu sànneekoo ndeke laal na la rek laal bi mu la laal loolu ndeke toj na soxol toj bi mu toj soxol noonu nag nga commencé indiwaat c'est-à-dire c'est-à-dire boo gisee nangam aywa ngeen commencé nag trouver terrain d'entente après mu ñëwaat nag alxuraan dafa mën rafetal mm-hmm. loolu la léegi nag li mu wax am solo la oustaz Makhtar yonente bi salaa salaam dafa wax ne nit ki joxul doomam cadeau bu gën mu yar ko yar bu rafet mm-hmm. est-ce que nit ki mën na yar kum dul assister nit ki ngay yar danga koy assister di xam fi muy dugg di xam fi muy génn te li yonent bi wax ne al ummu madarasa jàngat bu rëy la ci sunu yaay yi cest yaay école la te ci école la ñuy jàngee est-ce que yar bi ci xale yi mhm. bàyyi ji jël doom yi fii ak seen yaay indi mhm. leen fa mu nekk Europe wala Amérique ah. mooy gën ka mu bàyyi leen ak seen yaay fii ci dëkk bi. ak jigéen ak yaram. Mm-hmm. très bien mm-hmm. très bien déggoo sama wax ji. Cheikh na est-ce que non non non non beneen question la. li nga wax leen kaala li ma wax tamit kaala. non mais dama la foofu noonu est que kooku waa ji wóor na ko ni su doom yi ñëwee éducation bi mu ci ñoom est que dina ko amee foofu. parce que xale yi foofu ak papa ak seen yaay. bari na loolu wax naa am na ku mel noonu mais am na koo xam ne lii ah. est-ce que du moom mooy solution. moo tax ma la ñaar la ku nekk nag hmm. moom mooy xool li nga wax li nga xam te ne moom mooy li gën ci njabootam mu def ko. li nga wax du man wala kenn moo ko imposé mais question bi ma jox cas spécial la. Ah. am na koo xam ne doom bi mu bàyyi fii ak uh-huh. soxna si. Mm-hmm. mënu ci ñoom dara. dundu dundu bi fii. Mm-hmm. li sunu diine laaj ak sunu aada ak sunu maslaxa amul fële. Mm-hmm. ci yar sa njaboot. fële waaw da am lu bari lu njaboot gi sax li muy am ci yow mooy ëpp li ngay am ci moom. ñoom loolu la ñu tëral tey. soo xoolee tey nga bàyyi sañ am na ñu bari ñuy delloo seen njaboot ma am naa ci benn paa boo xam ne mu ngi dëkkoon France Paris dafa am ay doomam yi xale yëpp fa lañ juddoo dafa mujj ki ci gënoon garaaw te moo ci mujjee juddu daf ko delloo si mhm. ndax munu ko yar foofu mu ngi dem ci école yi bul bu xoosee xale bi moom mu am problème moom bàyyi ji mhm. ñemewu la wax xale bi lu ko metti ñemewu koo télé seetaan télé ñemewu koo def leen loo xamante ni moom moom la bëgg te bëgg na kooku raw man mii la woo delloo si xale bi moo yóbbul ko ko ci benn internat mhm. euh, fii Mbuur mu dem jàng ba tey xale bi sax fi ñu toll nii toog fii moo ko gënal mhm. xale bi yàlla defal ko tawfiix mu teel a mokkal alquran mhm. mu ngi jàng métier nekk ci daayira yi di yëngu ànd ak xale yi ba li muy dund fii moo ko gënal doon dund fële te ñoom bu ñu dellu see bu ñu xoolee xale bi dañ naan non du moom ci respect bi ci yar bi ci dal bi ci changement bi am ci xale bi ci comportement am ci ay démonstration am donc loolu fii moom moo ko mën am xam ne dafay bëgg ñi mu bàyyi fii mu jël leen ñu fekk ko fa parce que bii abi ñun sunu environnement actuellement nii wutewul ak bu Paris da ngay gis ne sax ñi nga téye foofu noonu peut-être nga retenir leen fa euh, canaliser leen ci benn affaire yaral leen sa bopp mooy gën nga bàyyi leen sa ginnaaw ñu yàqu ndax bu ñu yàqoo yow lañu koy laaj ëllëg ndax wa kullukum raain wa kullukum masulun an raiyatihi nga am foofu noonu espace bu mu xaj ñoom ak seen yaay nga jël leen indi leen fa teg leen ci sawet di leen gis di def ci ñoom di dindi di tere di ñaan sunu borom mu defal la tawfiq ci ñoom nga booleel ak sa su mënee nekk mhm. Mhm. su mënta nekk nag nga bëgg a jël maire bi kese li Cheikhu naa wax mhm. yóbbu ko fële mu bàyyi fi xale yi ak ñan ak lan ak ban façon nga fi bàyyi xale yi ban façon nga fi bàyyee xale yi yenn condition nga leen di bàyyee yow ñu ngi leen di bàyyee ñu ngi yor lu lu leen. maanaam léeg sa soxna si rek moo lay yitteel mais pas nga bàyyi xel xale yi mooy sama jabar na ñëw sama wet rek ngeen di dund seen dund mais njaboot gi moom nga bàyyi leen seen maam. xoolal nekk ci lu leen neex nekk neex. te duñ ñu bàyyi sa sa inconvénient bi nekk ci bàyyi sa njaboot àll. dem fële. dañuy ñëw daw daw seen responsabilité sax lañ koy tuddee. waaw mooy ndaw si na ñëw bu ñëwee sama wet maam ji nag noo xale yi nangam nangam école maa ngi yónnee lu ne. sa yoon nekkul ci nangami xale yi nga bàyyi fii seen yar ëllëg أستاذ نانيو دلوار سنو خلو تي سنو بروم نانيو دلوار سنو خلو تي سنو بروم نانيو سنات تي ير سنو نجابوت ير لين ير بي دبو اك سنو ديني بت يب دفو فق دالتي علال زمان تمو العين دون قناعة وما همهم إلا طوال البناء بت يب fëq nañ uti alal kenn doylootul seen yitte yëpp mooy étage bu kawe oto bu rafet bu rëy yooyu la ñuy dajale ba tax ñu bàyyi njaboot gi alquran ne laa tulhikum laa tulhikumu amwalukum wala awlaadukum an zikrillahi wa man yafaal dalika fa ulaika hum alxaasirun alalu àdduna nga xam ne dañ ko fiy bàyyi tey dem bu mu def bu mu la yàqal ak bi dox sa diggante ak sa soxna mm-hmm. bu nekkee fii nga nekk fële sàmmanteel ak xàq yi mm-hmm. bu nekkee fële nga nekk fii sàmmanteel ak xàq yi bu sa njaboot nekkee fii nga nekk fële sàmmanteel ak seen xàq mm-hmm. soo leen mënee jël yóbbu leen ci daara alquraan yi oustaz maxtaar jëlal njaboot gi nga yóbbu leen ci daara yi di dégganteeg oustaz mu sonn ci éducation njaboot gi ndax bu ëllëgee dinañ la ko laaj d'accord wala gën dinañ la ko laaj. d'accord ci yow waxtu wi dafa juróom minute ci des. ñu def tour euh, ndénkaane Cheikhouna mhm. lan mooy sa ndénkaane. bon man sama ndénkaane rek euh, mooy que tey euh, nañu laayante biir xam nga bu nekk xool li nga xamante ni moom mooy defar couple ak li gën ci couple am benn couple bañ a ñee benn couple wala di xool ci benn couple parce que tey kenn ku nekk tey li may wax daal mooy que tey jigéen ñi aussi. ñun ñu ngi leen di dénkaat suñu bopp di leen dénk suñu njaboot parce que tey dafa am rôle bu important boo xamante ni ñun parce que tey ki takk jabar bàyyee ko njaboot kooku am na confiance am na wóolute bu rëy am na yaakaar bu rëy bu mu am ci moom ci yow nga na nga fexe ba yaakaarum tas aussi ñi nga xam te ne ñu ngi nekk bitim réew mm-hmm. te aussi mën di ñëw tout le temps seen jabar yi xam nga ñu fexe aussi xam nga loolu nuñ koy màggalee xam nga di ziar oustaz Birama xam nga Louis xam nga ak euh, soxna Zeynab surtout moom xam nga nam nañ ko lool lool lool xam nga di ko ñaanal suñu borom xam nga te mu gaaw dellu siwaat fii xam nga voilà jërëjëf jërëjëf xam nga soxna si doo ko nuyu hmm? ah. kooku moom kaay ma xamal la mooy li gën ci man ah, waaw ah, xam nga moom mooy loolu ah hmm? nga ni waxaatal tur bi waxaatal tur bi sama xarit sama nit nga nag. yow moo koy faral def. ak waa Kaolack ah. moo sama waa lan mooy sa dénkaane Mère waaw Oustaz Matar di leen ziar bu baax di nuyuwaat Oustaz Habib. Mhm. ci kàddu yi di kontaan ci ak seexu Cheikhouna. na ñun jigéen daal ñun société bi nañu la muñ comme te ñun lañu wax nañ muñ nañ muñ na te suñu jëkkër yi bañ noo sori mhm. te waa Saalum sama may nuyu nag sama mbokk Saalum Saalum ndax man dama bari ay xaritu Saalum Saalum <laughs> waaw bu baax di nuyu ñoom bas bu baax sëg lu ñu seetaan émission bi mm. naan maa yow foofu ngay toog dégg ma tey romb nga nga am escale dem ba kulaar di nuy waa kulaar gépp gépp sama sama xarit foo say nekk kulaar mm. ñoom Malick Demba dem Demba bàyyi ma di nuyu nag sa président Macky Sall dafa def lu rëy mm. waaw suñu président bi ndax keroog bi muy dem Mali ci IBK ànd ak soxnaam ci lañ ko woo ni ko bureau dafa génn àddina mu arrêté voyage bi ci toog Sénégal ba tey yow ma teg da nga wax naan wàññi na ceeb beeg diw gi loolu yëpp loolu ku def voilà ku def lu rëy daal waaw <laughs> naan sa ndax ceeb beeg diw gi wàññeeku ci ci la jëm bu jógee ci yëpp ci la <laughs> waaye dag naan ma foofu mën a tukki loolu day information mais bu ko nekkoon egg loolu passé na di waaw la ko wax mais xamoo ko xamoo nga dafa courte xam nga dafa dagg voyage bi. bañ a xam waaw dama la ko xamoo ko rek moo tax comme man maay affaire am kañ. waaw daf ko dagg <laughs> boo booy dem daal boo jógee fii na nga dem ca ca jëf ya. waaw d'accord <laughs> Oustaz Habib hmm. lan mooy sa dénkaane waxtu wi jeex na. <laughs> waaw ñun de li ñuy dénk sunu bopp di ko dénk suñuy mbokk mooy ñu delloo war xel ci suñu borom bàyyi ko xel bu baax a baax a baax nit ki jamono bi muy def li muy def te jaaduwul. xam na ne la muy def jaaduwul mais bu delloowaatee boppam ci yàlla ndé ndénkaana yi alquran joxe ñu fonk ko bàyyi ko xel kenn du toroxal jigéen kenn du xaawi mbalaanu suturaam hunna libasun lakum wa antum libasun la hunna kon tabaarakallahu yooyu jar na bàyyi xel ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar di nuyu sunu soppe professeur mam Ousmane Ndiaye tabaarakallahu di ko ziar bu baax a baax a baax yow suba sax moom may ñu ngi war a def benn mooy projection de film yi ñuy def ñoom Mansour doon ko def ak yooyu ñu di ko def benn benn tali moom mooy def commentaire bi après barakallahu ñu ngi koy nuyu di ko ban waxtu lay doon jàpp gu ñu waxtu waaw xam naa nag waaw incha allah suba benn tali rek mère Thiam nga yenn jëf d'accord jërëjëf beneen bi ci des mooy Oustaz Makhtar moom Cheikhouna mère Thiama ak waa DTV yëpp nag tabarakallahu Euh, ñu ngi leen di invité ci sunu benn xew-xew mhm. boo xamante ni tabaarakallaahu mooy euh, sunu waa kër moom Abdoul Aziz Dabakh mhm. yi nekk euh, waagu ñaay koppe te Serigne Mansour si jiite ko mhm. tabaarakallaahu ñu ngi waajal xew-xew bu mag boobu ñu koy defee ci waagu ñaay muy le 13 octobre incha allahu taala foofa ca waagu lay doon conférence gàmmu lay doon gàmmu lay doon gàmmu annuel la le 13 incha allah d'accord waxtu bi jeex na <laughs> waaw ci vendredi ba dina xam xadatul jumaa ci jàkk koppe bi ñu ngi nuyu sunu sëriñ mhm. alxaaji Mor si ñu gën ko xam ci alxaaji papp si mhm. sunu wayjur di ko ziar di ziar sunu sëriñ mhm. sëriñ Sidi Ahmed si ibnu sëriñ Babacar si eh, di ko ñaanal yàlla mu dolli tooke jërëjëf jërëjëf sëriñ Habib eh, ñu sant la gërëm la di la masawu coono jërëjëf Cheikhouna macha allah jërëjëf Mère Thiam ñu sant leen gërëm leen di wax rek moodu moodu yeeg faatu faatu yi ku ne na sóoraale àq àq àq dana gàllankoor lu baree baree baree bari bëri na koo xam ne fa mu nekk la muy dund ci coono mu tee koo dellu fa muy bëgg a dellu te ragal faa dellu lu ci bëri àq dana ko waral nañu bàyyi xel àq soxna nañu bàyyi xel àq njaboot nañu bàyyi xel àq borom kër àq yooyu noonu kenn ku nekk bu sàmmonteeg moom yàlla mën na yéwénal say mbir ba waxtu woo bëggee jug jug yomb la waaye àq lu doy waar la nit a ngi jotanteeg yow téléphone mënu laa wax li muy dund ci xolam ci métit te yaa ko ko teg loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ku ne fa nga nekk nekk moodu moodu wala faatu faatu posel question sa bopp mbaa yoralu ma àq ki ma bàyyi ginnaaw loolu boo waxee sa conscience rek sa damir sa conscience dan la tontu ci na mu gën a gaawee loolu la ñuy tënkee di leen sant di leen gërëm dund ak dëkkuwaay waruwaay koddaay yal na yàlla yombalal na ko fanu gudd wa ànd ak wér yaram yàlla defal nu ko mu ànd ak mujj gu rafet yàlla defar sunuy affaire yok sunu sifur d'affaire maynu yaram bu sedd bu ànd ak xol bu sedd subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil iddati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin jam ak jam ñu yendo ko fanane ko ba altine ak jam inshallah taala ñu delsi wat ak yéen di ñaanal sunu sayda sunu soppe sayda zainab Fall mbokk yëpp namm nañ ko di ko ñaanal mu dellusiwaat ak ñun toog ci fauteuil bi àndaat ak ñun incha allahu taala wa salaam.